moom la waaye bis bu set mu indil ñu bind nag ci xasaay du Serigne Touba yi kon Oustaz maa ngi lay nuyu bu baax te emaan mbégte bu baax a baax nag ak tawféexu sunu boroom ci bokkaat ak yow jotaay maa ngi nuyu nag euh, alaaj Birahim Touré ñu ngi koy nuyu bu baax a baax moom kilifa kër gi ak mbooleem seen rek ñi nga xam ni ñoo jàpp ci liggéey bi ba téléspectateurs yi mën a jàkkaarloog ñun di ñu seetaan kon Seydina Ousmane kàddu gaa ngoog jërëjëf sëriñ Bokar Konaté maa ngi lay ndokkeel bu baax a baax ci nuyu gu rafet googu xam-xam bu sell bi nga ubbee tubaarkaal la ma dend ak ci pegg bi oustaz Daouda Mbaye gën koo xam ci oustaz 2.0 borom xam-xam bu sell tubaarkaal la nga xam ne tey nag dafa wàcc émission ci borom daaru oustaz maa ngi lay nuyu bàyyi la ñi nga xam ne ñu ngi la bàyyi xel ci Leral TV. aouzubillahi min shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim la hawla wala quwata illa billahi al-aliyyil wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa radiyallahu an cheikh alxadim xadim rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam allazi qaala fi xaqi sahabati alkiram xukka albukaa ala saadaati amwaatin tabki al-araadi alayhim kassamaawaati kama qaala azza wa jalla fi alquran min almuminina rijalun sadaqu ma ahadu allaha alayhim fa minhum man qadaa nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila aaya boobu nu ko déggee xam ni am na ñoo xam ni wéy nañu waaye bàyyi nañu ay traces ndax minal muminina moo tax rijaalun sadaqu yoon moom njëkk ca amut solo waaye gën caa dëggu am solo ndax nit dana jiitu ca yoon ba noppi dëgguwu ca mhm. waaye nit mujj ca yoon ba noppi am ca loo xam ne ñi jiitu sax amuñu ko ca kon nag suñu mag ñu baax ñi nga xam ñu ngi leen jukki di waxtaanee rawatina ki nga xam ne tey moo laytaayi jotaay bi ñu war ko waxtaanee tey muy ki nga xam ni ñëpp buñ nee borom daaru rek euh, maam Cheikh Ibra yi Mbàkke euh, ndeysaan buñ ko waxee rek borom daaru ndaamal daaru yooyu yëpp incha allah xëy na sëñ Bokar Konaté sunu jàmbaar yi nga xam ne ak sëñ Saliou Samb dinañ ci ñëw Euh, joxe ci lu bëree bëri euh, waaw ñun luñ ci mën a taataan rek ñu taataan ko waaw jëlaat bind. <laughs> ñu delluwaat la kàddu gi sëñ Ousmane. jërëjëf Oustaz Daouda Mbaye ñu ngi leen ndokkeel bu baax a baax. ci kàddu am solo yooyu. waaye ci fekk bi maa ngi ak ki nga xam ni moo di Serigne Saliou Samb. Mhm. Serigne Saliou maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay am nuyoo Alaaji Ousmane. Mhm. axaasani baax yi mina seytaani. fii kulli majlisin wa fi awtaani عبادة ابتدأت بسم الله وهو كفاني خير المراحل وجهت كل الحمد والشكر للمالك الرحمن والشكور صل وسلم وتبارك سرمدا على الذي سميته محمدا وآله وصحبه والأنبياء واسكته المقدمات ربيا وسرح بها صدور من تحلمهم شرحا به لا تحتلهم سلام مكة سيد الله mbokki jullit yi mbokki taalib yi mbokki réew mi mboolem téléspectateur yi topp Leral TV rawatina seen jotaay ba am solo bii di safaru leeral ñoo ngi leen di waxaat asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Alaaji maa ngi lay fay am nuyoo tey nuyu borom xam-xam yi nga xam ni ñoom laa fekkoo ci jotaay bi muy Alaaji Oustaz Daouda ñii nga xam ni ñëpp ràññee nañ ko te xàmmee ko. muy bay bay waaru am solo ci toolu islam bi ci xam-xam ba rafet bi kaar tubaarkàlla mhm. waaye fasaaxa gi kaar ak mën jàngale gi ak yaatu gi dënn kon alaaj maa ngi lay ñaanal yàlla gën la wér amiin incha allah ñu bokk lépp sabu ba sa naam ci toolu islam bi amiin waaye doo ngi bég ci bokk ak jotaay bi itam mhm. alaaji booy wax ak planté borom xam-xam bi nga xam ne mhm. kenn dootul leen ko présenté ci xam-xamam ba rafet kaar tubaarkàlla waaye ñàngale mu am solo jege nit ñi tam njëriñ dañ koy jëriñoo di ko ñaanal moom itam wér ak sago ak yàgg bi ba mën a yeggale ay maanaam ki yéeneem ci toolu lislaam bi ak ci liggéey Sëriñ Tuubaa bi waaye maa ngi nuyu nag Cheikh Mamadou Mountakha laa ci waroon a jiital te di ko ñaanal mu yàgg fi lool daal ko wér bar naal yi mu naal la Sëriñ Tuubaa ci toolu lislaam bi mu yeggale ko sagoom yàlla yeggale daal yi ba yeggale yeneen naal xam hmm. ne ko njabootu Sëriñ Tuubaa ji waaye ànd ko mboolem taalibe yi noonu lañ koy ñaanale mboolem xolafaa yu nekk ci réew mi yëpp te toog ci bunti lislaam yi nu amul wér ak gudd fan ba mboolem leenu naal ànd koog seenu njaboot nu yàggale koog seen sag waaye alaaj Ousmane nag maa ngi nuyu soxna Ami Cissé sama waajuru bopp ak eh, sëñ Mayaande Sàmm ndax kat li ñu topp jotaay bi lool di nuyu sama baat bàjjen ya nag ak tante yeeg mag yaak rek yeeg ahlu sàmm benn gépp hmm. leen jox jël nuyoo bi nag tey di ko teg ci loxo soxna Aram Cissé boo ko defee mu séddale leen na ko mboolee autorisation leen yëpp rek te dee bu baax a baax a baax a baax kon nag nu yobaa ko jërëjëf sëriñ Saliou Samb ñu ngi leen ndokkeel bu baax a baax tubaarkàlla dégg ngeen néew solo woowu tey nag ñu war a waxtaanee maam Thierno Ibrahima Faty ñu war koo xam ci borom daaru maam Thierno mu Cheikhul Khadim maam Thierno mu Mor Anta Sali maam noo mi nga xam ni kenn la ci jàmbaaru Cheikhul Khadim yi nga xam ni booy lim seex yi wala ñi nga xam ni ñoo raw ci ci rang bi sax doo ko ci boole ndax euh, na mu meloon ak magam ju baax ja la waaye mu doon euh, bëgg naa ñu waxtaan incha allah ci intermédiaire bi nga xam ni maam Thierno doxoon na ko ci diggante Cheikhul Khadim ak tubaab bi nga xam ne laataa 18 safar bii di ñëw première 17 safar. Euh, am na intermédiaire yu am solo yoo xam ne xam naa sëñ boo ko dina ci ñëw ak sëriñ Saliou ak Oustaz Daouda ñu ko waxtaanee laataa loolu. damay bàyyi euh, ki nga xam ne moo di sëriñ Ibrahima xasida mu daal di ubbi jotaay bi xasida seexul xaddim yi ñu doog a wéyal incha allah. bismillahi barakatul sil wujud wal xidam. xad wajaba law lanaatun min xidam. barakatul sil wujood wal qidam xad wa jaba law lanaatun min xidam subhaana sil baqaay wal muxaalafa an xaadali amnan bila muxaalafa mulku lasil xiyaamu bi nafsi wajab لو إلى كليتي خاد العجب الحمد لله تعالى وعدا كما له الخمسة والوعدا لمن له القدرة والإرادة وللمما حياة عباده liman law zaw kama lawul basar ma al kalami kulla sayin wa nazar huwa taala qadirun murid wa alimun ayun huwa al farid allahu rabbuna samiun wa basir wa mutakallimun wajaade bi xusoor lam yanuqatu adamun wala udus wala fanaahu lillazi minul adid rabbul wara laysa lahu tamasula bal iftiqaaru bal mamasalo rabbul waraa laysa lahu tamaasulo wala tixaaru mbaloo ma maasalu am ni li baaqin jallata dudi wa tawaludin wa aslin wadadi malikuna lam yanhu ajusun aw karam عطله وليس ينكرا أحمد من جعل وموت وزمم لم تنه وقد كفاني الغمم نفعني الذي عمر وبكم لم ينعيا له ونعم لكم إيجاد كل ممكن وتركه وعن سواهم خنيل فابتقر من عداهم رسولنا نبينا محمد عبد الرسول نعتماه زمد عماه صدق بأمانة جسيب له بتبليغ إلينا عن كذب يقود من خيامة وكدما عرمت المتي لعاو كدما محمد بسر من لو خدم كرسي مخدما كن ساخدم محمد بسر من لو الخدم كرسله مقدما كن ساخدم محمد بزر من لا الخدم كرسي مخدما كن ساخدم نباني من لم يكن بولد ولا بوالد قد راب خردي نفعني من لم يكن بولدي ولا بوالد فراب خلدي على الذي يريد خير ولدي وخير والد بخير بلدي على الذي ولد خير ولدي وخير والد بخير بلدي بآلي وصحبي والأمة صلاة ذي العرس العظيم سمدي بآله وصحبه والأمة صلاة ذي العرس العظيم سمدي Ibrahima Sëñ Xaadi Ibrahima Gueye xasida njàngu am solo lu nga xam ni sell na lool tubaarkàlla ko dégg xolam sedd waaye damay aasoon laataa ma jógee foofu rek jox sëriñ Saliou Mbaye moom it tubaarkàlla nga xam ni euh, moom la jàng lool sama waa ji mooy mu daal di doxal tuuti rek incha allah ñu doon dugg ci waxtaan bi incha fa antal muntaxa samay zoon. غيت سفيا منجيا سائغات بك الله لي خاد الجدار فوق غيت سفيا منجيا سائغات بك الله لي خاد الجدار ينفو من الحق جاء على قل الحق بحق مبين لا يواني من زعبي كتاب بي نرجو من الله رحمة وفصنا به في كل دفع وفي جلب كتاب به نرجو من الله رحمة وننجو بدنيا وأخرى من الكرب رجونا من المولى به خير مذلاب وفصنا به في كل دفع وفي جلب لغزارك الذنبا خيالي زدللا يقينا بي مولا جا كل جدابي إذا ما تلونا الآية فزنا بما اقتفن على خيرنا من شر جالب الربي إذا ما تلونا الآية فزنا بما اختفل على خيرنا من سر جالب اللب قهرنا بالأعداء طرا وخادنا إلى الأكرم الوهاب في البعد والقرب تبارك الأغدار هو سكوى البلاء بيون نلقذ بعد انتفال جدبي سمرنا بميمن هدنا تلقيا بجاه الذي أمده قد قدد به alayhi salaatullahi jalla jalaaluhu bi asaabi alna li afdal al azbi alayhi salaamullahi ma daama mustafan wa man li yanal mawla bi asaba zahbi alayhi salaamullahi ma daama mustafan ومن لينا المولى بي الزبزبي addi borom Tuuba taaliw bàyyi tarkaal jàngam solo nga ubbee tarkaal la te nag ñu war waxtaane maam Thierno Ibrahima Fati thème bi di euh, relation Cheikhul Khadim ak maam Thierno ñu war ci ànd ak ñi nga xam ne moo di Serigne moom Serigne Abbas bi fi jógee xam naa ni dafa am retard wala mun ne am ci nekk ci ngànt dañuy ubbandi waxtaan wi ak Oustaz Daouda xëy na ñàkkul am na lu waajaloon ngir indi ko ci maam Thierno Ibrahima Faty nga xam ni wax naa léegi ni kenn la ci ku dox ku am am fu mu féetewoon Sëñ wax naa léegi ni la 17 safar laataa 18 safar bi nga xam ni tubaab bi convoqué na convoqué na Cheikhul Khadim mhm. Sëñ Tuubaa moom la yebal moom moo dem mhm. te bi mu demee jiwru nag fekk gouverneur am na ñu mu yebaloon ngir ñu jël Cheikhul Khadim mhm. ngir bu demee am ñu taxawee moom moo waxtaan personnalité am ak fullam ak fayda gu mu àndaloon ak euh, daraja gi ko yàlla mayoon ak doon dëgg dëgg rekk rek Cheikhul Khadim ba pare doon tarbiyo ko ba tax mu waxtaan ak gouverneur convoqué ko na ko maa ngi lay seedal ni bu ma demee Sëñ Tuubaa dina la wuyu si nga xam ni keroog mi ngi euh, euh, keroog ko gouverneur woo dafa yëpp la fas ñu dab ñi nga xam ne ñoo demoon ngir jël Sëñ Tuubaa mu daal di leen di na nañ taxaw ne xaar xaarandi ko jéewul fa lañ fa la demee moom daal di dem ci nga xam ne moo di Mbàkke Baari keroog fajar googu fas ba mu waroon sax fas boobu la Cheikhul Khadim war daal di wuji ki nga xam ne moo di ndar ak yu bëree bëri ci xew nga xam ni sëñ Tuubaa bi muy dem moom la dénkoon sëñ Fallou sëñ Moustapha Taaw nga xam ni mu téelanti moom solo dañ ñëw incha allah ci kanam ak sunu invité Oustaz Mame Thierno Ibrahima Faty bàyyi rek nga doxal incha allah jërëjëf sëñ Ousmane euh, di am mbégte ak euh, contentement bu rëy rëy fas yéene waxtaane euh, kenn ci sunu maam yu baax yi fi mu toll nii ki nga xam ni moom mooy kilifa gi. Eh, di Birahim. damay ragal fi mu toll nii moom bayaboo rek. bayaboo soxna si soxna si daal di koy daal di daal di ut ndox ndox ndox ndoxum sedd mu bëree bëri. waaw baa mu xool yi koy yi yi koy calmer rek. ci sago ndax xam naa ni amul amul amul sago. ci ki nga xam ni moom mooy ki ñu fas yéene waxtaane waaye itam dafa fekk ni rek ñaan cofeel du jàmm. waaw ndax la la la la waxoon ni majnunu layla mhm, layla waaw mu ne amurru ala diyaari diyaari mhm. layla waaw mu ne ma xubbu diyaari saxaf na qalbi walakin xubbu man sakana diyaara wallaahi waaw léegi-léegi ndeysaan da nga yeddi nit ci cofel mhm. waaja day romb miir ya di foon miir yi ndax dof ci layla maanaam mu ngi fër mur bi waaye miir bi taxul muy foon miir bi taxu koo jóg ki na ci biir kër gi tax mu nekk ne ca biir a ko tax a jóg moo tax léegi-léegi ndeysaan dina am luy animer nit ki ci loo xam ne ci cofeel mm-hmm. moo tax ñuy wax ni ma yaa aadili ñuy wax ni yow mii di ma yedd ci sopp gi ma sopp diw moo tee ngaa def ndànk ndax law xusta ilman lam talu waaw bu fekkoon ni am nga xam-xam ba xam li ma mos dooma yedd ci cofeel gi nga xam ni moom laa am ci kon cofeel googu noonu lañuy dawal ci képp koo xam ne rek mag la ci réew mi waaye rawatina maam Thierno Birahim mi ñuy waxtaane ndax dafa nekkoon jàmbaar joo xam ni dafa amoon li jafe li njëkk lu ñuy waxtaanee muy une personnalité exceptionnelle xam nga doomu aadama bu amee personnalité day tax kenn du ko yàpp day tax kenn du ko yendu loo fu mu warta yendu mm-hmm. day tax kenn du ko fanaan loo fu mu warta fanaanoo te day tax itam lu mu war a bañ bañ ko xam lu mu war a nangu ak xam kan la war a topp te loolu yëpp buñ duggee ci biir waxtaan wi dana feeñ xam lu mu war a nangu muy li nga xam nga moom mooy li nga war a ubbee léegi digganteem ak nasaraan si nga xam ne ñoo fi nekkoon waaw fulaak fayda personnalité parce que dañuy wax ni ki nga xam ni ab saay-saay la wala ki la bëgg fexeel dafa am léegi-léegi loo xam ni personnalité dignité bi ngay am day nekk barrière buy dox sa digganteeg moom loolu la ñuy tuddee alwaqaar muy wegeel xam nga xëy boobu suñ tubaa amoon ci kanamu nasaraan si ba ñu mujjee dem ba def soumission ci kanamam loolu noonu maam Thierno Birahim personnalité boobu la amoon te boo xoolee personnalité boobu dafay wàccaat bay feeñ ci li nga xam ni moom mooy ci njabootu boppam dinañ ñëw ci biir njabootu boppam ñi nga xam ne tey jii ñoo ko fi représenté. Mm-hmm. seen i personnalité ni nga xam ne noonu la différenté ak kenn ku ci nekk li mu représenté. Mm-hmm. waaye xam nga dafay doy rek turu maam Thierno Birahim. tur bi dafay raisonné mais turam dafa am pois bu rëy rëy ci tariqatul muridiya. ban poids la ci am. poids bi mu am mooy doy na sëkk ñu ne Sëñ Tuubaa bu muy dem ci géej ga. Thierno la dénkoon njaboot ga. ba mu ñibbisee Cerno la laajaan njaboot ga. Cerno la laajaan njaboot parce que dafa xam ni. Hmm. ba mu ñëwee laajaat Cerno njaboot gi waaye dafa fekk ni dafa xamoon nangul maam Cerno li mu doon ba noppi. Hmm. ndax Sëñ Tuubaa dafa amoon lu mu doon ci yonent bi. sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ni mooy mooy na hmm. li mu doon ne ci moom mooy Sëñ Tuubaa dafa xam capacité kenn ku ci nekk ci njabootam. lan mooy sa compétence sa domaine de prédilection lan la sa pas-pas lan la sa dëggu ak sa nangu ci yoon wi loolu yëpp suñ tubaab da koo xamal. Mhm. moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam noonu la daan jëflanteeg saxaaba yi moo tax léeg-léegi am na bis kenn ci saxaaba yi ñëw ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bëgg nga fal ma ma nekk ministre. Mhm. ba mu ñëwee wax ko yonent bi ne ko déet yow loolu du sa mission. Mhm. mu ne ko yow ku la joxub quartier. boo moytuwul boo fa yendoo benn bis waa quartier bi danañu am problème ndax lu waral loolu mooy daf koy wan ni ko ni responsabilité dafa rëy te responsabilité boobu bu toll noonu la Sëñ Tuubaa dénk ki nga xam ni moom mooy maam Thierno Birahim maam Thierno Birahim bu ñu koy wax nag euh, tey bu ñuy wax ak benn personnalité bu mel ni moom dinañu xam ban at la gane àdduna moom maam Thierno moom maam Thierno loolu mu ngi nekk vers 1862 ndax histoire da ngay wax rek vers. Mhm. ndax am na ci ñoo xam ni. mën nañoo waaw mais euh, gis nañu mille neuf cent euh, mille huit cent soixante deux. yu mhm. mu ganee àdduna. waaye mu gane àdduna ñu xam ko ci turam sëriñ Ibrahima Fati Mbacke ndax nag léeg léegi nit dana liggéey liggéey boo xam ni ba ñu utal ko surno maanaam aw dàkkantal ba dàkkantal wa mujj sax nëbbu tur wa. Mhm. waaye nañ taxaw ci Ibrahima ji. ba noppi. Ibrahima jooju mooy kan maam Ibrahima wala xad aataynaa Ibrahima rushdahu min qabl sunu maam Ibrahima bi nga xamee ni suñu borom nee na ba nga xam ni la koy jox la sens de la responsabilité dès le bas âge boobu euh, sunu maam Ibrahima mi ngi nekk gone su ndaw. Mm-hmm. waaye maam Ibrahima bi muy nekk tout tànk itam sëñ Ibrahima Fati Mbàkke muy borom daaru nekk tout tànk waaye la teel a am le de la responsabilité. moo tax Sëriñ Tuubaa teel koo bàyyi xel. te kat mu bokk ak Sëriñ Tuubaa. waaw di rakkam. waaye xoolal cër bi nga xam ni moom la joxoon Sëriñ Tuubaa ndax dafa dem ba mat ku képp mat sëkk la mu doon ci xam-xam mat sëkk la mu doon ci wilaaya ndax la Sëriñ Tuubaa am ci li nga xam ne mooy ci njureel ci maam Moranta. Hmm. loolu la maam Thierno Birahim Euh, Thierno Ibrahim Fat bii di euh, ñu koy wax euh, maam Thierno moom la amoon ci ci ci way juróom mm-hmm, ndax ak wilaaya wala yu bu la juree mm. dana na toqantal ci wilaaya ga waaye est-ce que tey jii wilaaya googu noonu daf koo jël jàkkaarloog Sëñ Tuubaa ne da koy def faas loolu nag xàmme moo koy indi ndax tey mënoon na wane ni fañu toqantalee sëñ bi fa lañ ma toqantalee. Mhm. maanaam mu dellu ci li ñuy tuddee silsila nasabiya. ne kii ëppale wu ma dara. ëppale wu ma dara waaw parce que loolu ci aada la dellu. Mhm. waaye xaqiqa doxeewut noonu. déedéet. ndax bu xaqiqa doon doxee noonu. xaabil mhm. du rey xaabil. déedéet. bu xa bu fekkoon ni aada rek la. kon yàlla du wax ni danaa duma doomu yonent yàlla noox. muy kanaan bu fekkul woon du xaqiqa kese. kon yàlla du ne danaa duma soxna ki nga xam ni moom mooy luut ak bu noox waaye bu fekkoon ni rek aada tex kese moo tax nuy wax hmm. kon Asiya mi nga xam ne moo nekkoon soxna Firawna mu bon ma ah. kon du wax ne rabbi ibni lii indaka baytan fil janna wana jini mi Firawna wa amalihi wana jini min al qawmi zalimin wa suñ borom ni Asiya dinañ ko tabaxal ab pale ca biir aljanna li tax ma jaare foofu mooy dama bëgg ñu xam ni ndekete nit ki dana am ak wilaaya waaye mu jël wilaayaam nëbb ko am koo xam ne nag da koo mat sëkk ab waliyu loolu la maam Thierno Birahim def. macha xam ni suñ tubaa daa mat li mu doon. Mm-hmm. xam ni suñ tubaa natt na ko ci xam-xam na ko natt na ko ci wilaaya mat na ko natt na ko mu mat ko cheikhun murabbi di sëriñ boo xam ne da lay yar waaye cheikhun euh, euh, def ko muraqi muy cheikh boo xam ne daf ko yéege. mu nangu loolu yëpp jël la mu am ci xam-xam jël la mu am ci wilaaya lépp mu jël ko jébbal ko sëñ bi kooku mooy maam Thierno Birahim waaye bokk na ci li nga xam ne tey jii nii joué na ko comme rôle. Mhm. ci tariqatul muridiya moom mooy ni tey assurer li nga xam ni mooy la continuité maanaam euh, de la mission. Mhm. de Cheikhul Khadim. moom moom maam Thierno. parce que bi xam ni sëñ bi mi ngi dem bàyyi koog njaboot gi mais bi mu koy bàyyil ak njaboot gi njaboot gi jamono jooju ñu ngi nekk ak ay ay ay ay tànk mhm. waaye xolal jamono jooju bi sëriñ bi di dem qusuuri an nii xalaat wal ahlu an nii tafarraqat gis nga bayit boobu mhm. sa saa bu ma ne ko jàkk rek damay am lu bare bari lu may fàttali ma ne sëñ sëñ Tuubaa bu demee bay wax ni ndeysaan toll na jamono joo xam ne gisul kenn xusuur yaa an nii xalaat nee na sama sama kër yeeg yëpp mu turne xool gisuma kenn lépp wéet na gent na waaye wala lu an nii tafarraqat ma xool tey jii nii ci njaboot gi njaboot gi tasaaroo du njabootu boppam mooy ñi nga xam ne tey jii ñoo ko doon wër waaye ba sëñ bii dem mu doyloo yàlla moom kese. moom Cheikhul Khadim moom Cheikhul Khadim moment boobu nag ki mu bàyyi njaboot gi. njaboot gi seen àlliwa futtul déedéet seen àlliwa hmm. bënn na de hmm. seen àlliwa tardewut de déedéet ndax boo ci jukkee ñu ne la Cheikh Mouhamadul Fadul Mbacke suñu fàllu jàmbaar ji fàllu ma si jox réew nga xam ni la mu dajale woon ci xikma ci sagesse kenn xamul nga xam ni suñu fàllu day jël benn baat dégg ko rek mu jël baat ba créé ca xikma boo xam ne boo ko déggee xam ne lii lu rëy la hmm. ndax baatu Senghor dégg nañ ko fi. wallaay ca kaw. ne seng ca kaw. <laughs> ak la la sëñ Fall waxoon ak taalibe ba. Hmm. mun ne ko sëñ bi ba baa ba ba bu ñu demee ëllëg yomal xiyaam de mu ne ko sëñ bi nii nga ma yóbbaale nii noon xam naa noonu nga ma yóbbaale ëllëg yomal xiyaam mu ne ko naa la fekk ca yoon wa rek. waaw comme ni ma la rombee nii daj la nii ci yoon bi mun ne ko bu boobaa naa la fekk ca yoon wa ndax nga neexu yóbbaale. Hmm. waaye maam Thierno moomu tey dañ wax nii nitu yàlla dëgg day dundee ñaqam. Hmm. waaw baykat la woon mu nekkoon ab cultivateur nekkoon baykat ndax yoonu murit nag dafa ñaara ko tingoom. muy al alm wal xidma. nu mu firi. xam-xam ak xidma mooy nekk ci soxlas jaan ñi parce que xidma gi li tax mu jafee dégg mooy balaa ngay def tey xidma gi jëm ji suñu boroom mooy ni xidma gi dafay dellu nga commencé ci jaam yi parce que yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax ni mu ne képp koo xam ni man nafasa an muslimin kurbatan nafasa allahu anhu kurbatan min kurbi yawmil axira yonent bi sallallahu alayhi wa sallam képp koo xam ni fekk nga jullit bu nekk ci ay jafe-jafe mu ne nga fexe ba génnee ko ci jafe-jafe yooyu mu ne ëllëg yawmal qiyaam bu ñëpp di jàq di tiit yow doo tiit hmm. ndax sayyidul qawmi xaadi xaadimuhum dañ ne kii sangu nit ñi mooy ki nekk ci seen service buñ toogoon ci jotaay bii ngay xelli kafe di ñu jox ñuy naan yow yaay sunub sang mhm. jotaay buñ toog dafa xiim ataaya kay xiim mooy sangu ñay naan ndax sayyidul qawmi xaadimuhum sangu nit ñi mooy ki nekk ci seen soxla nekk ci seen service kon loolu mooy li nga xam ne tey jii nii ci en guise d'introduction mhm. foofu la ñuy euh, ubbilee ñi nga xam ni ñoom ñooy sunu sunu sunu sunu ñaari euh, naataango yi nga xam ni mm-hmm. wax dëgg yàlla euh, mën nanoo jouer nu ne mm-hmm. waaw boo leen boo leen boo leen paasoon tey euh, bal bi noo leen ko paasee rek ñoom mën nañ koo jëlee noonu mm-hmm. waaye daal Ousmane ci ci ci tënk wan wax nañu ni nga xam ni mooy at bi mu ganee àdduna waaye wax nañ tamit fi mu ganee àdduna di fële nga xam ni moom mooy ca Poroxaan ah, ku wax Poroxaan nag delluwaat ci ki nga xam ne nag moom mooy soxna soxna jaara ndax ki tax nga tal ko nag talu ko woon de soxna jaara daa yore woon daara ba noppi dëkkee jàkka moo ko jaaratullaahi moom soxna maam Mariama Bousso moom mhm. yore woon daara di jàngale nekk ci biir daara waaye ni mu xam te ni noonu la maam soxna maam jaara mokkale woon alxuraan te woon ko noonu kon sëñ ji da koo nàmp da koo donn waaye nga xool itam ki nga xam ni moom mooy soxna jaaru kan mooy waajuram du soxna soxna Assa soxna Assa Waalo soxna Assa Waalo tamit nekkoon jàngale jàng jàng jàngalekatu alquran kon niñ naan kéwul du tëb doom ji bët waaye nag kon maam Thierno ki nga xam ne nag moom mooy waajuram bu jigéen euh, moom mooy ki nga xam ni moom mooy euh, soxna soxna faatu isa mu baax moomu nga xam ne tey jii nii moonu euh, ki nga xam ne moom mooy soxna maam eh, mooy ki ñuy wax sëñ euh, maam Thierno Mbac maam Thierno borom euh, borom daaru ki nga xam ne nag mooy fi mu toll nii Birayim. Mhm. xam naa ne fi mu toll nii da daanoo gum na waaw ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy xëpp ñu koy xëpp ndox fi mu toll nii pour mu jugaat. Mhm. waaye xam naa ne damay bi daw si ñëw léegi. nee na moom li ko jaaxal mooy. Mhm. bi Bamba di dénk. Thierno. aas bi Thierno amoon. waaye teewul mu mu mu fulla ak fayda. xam nga loolu lu muy wane mooy li ma teel a wax le sens de la responsabilité. Hmm. parce que tubaab yi ñooy ni osam bien ne la valeur n'attend point le nombre d'années. maanaam teela nekk nekk gone terewul nit ki mu am jomu ki nga xam ni mooy waxambaane bi dëgër këj wala ki nga xam ne dem da ba mat sëkk responsable bi ndaw mën na ko am. nañ dellu ci alquran. Hmm, hmm, yàlla ku mu mës a sédd ndaw nga. waaw mag waxagul yaa yaxya hmm. xusil kitaaba hmm. bi quwa wa aataynaahu alxukma hmm. sabiya yàlla nee na ba muy jox ki nga xam ne moom mooy euh, yaxya responsabilité yonent yàlla yaxya boobu ndaw la kon maam Thierno li tax mu nekk ndaw Sëñ Tuubaa jox ko li nga xam ne mooy responsabilité bi te responsabilité mu ko jox dara euh, dara dara maanaam dara sooxewu ci kon loolu rek doy na sëkk ñu ah. war a jàngat xam ki nga xam ne moom mooy maam Thierno ñu doy loolu a ah, bu sama gars yi jukkee li ñuy jukki ba noppi après ñu ñu ñu ñu ñu jukkiwaat rek ci ci ci ci ndeysaan ci café ñu dugal ah ci leeru safar gi mhm. dugaat ci leeru maam bi euh, maam Thierno am am am nag ak buuñaa su mu ah. toll nii ku zappe doo gis buuñaa gi tarkalla kon daal loolu la oustaz Daouda Mbaye daal di ubbi gi moom ku zappe ah, doo ko gis tarkalla noonu kon sëñ boo dégg nga li oustaz Daouda daal di souligné muy ay points yu am solo tubaarkàlla la. Mm-hmm. xanaa ma bàyyi la rek nga daal di ci sos li nga koy sos jox jàmbaar ji mu collecté ñu doog a duggaat ci di ndokkeel sëñ Daouda rek. sunu oustaz bi. Mm-hmm. wax dëgg yàlla li mu andi am na solo lool. Mm-hmm. ñun ñëpp dolle ko waat nañ. ci maam Cheikh Ibrahima Fati. ñu di ko wax maam Thierno Birahim. ñuy ñaanal xalifaam bi mu yàgg fi lool te ànd ak wér. amiin ak mbooleem Assène Bassirou Anta ak mbooleem njaboot gépp nag. Euh, di nuyu waa daaru gépp waaye di nuyu nag Alaaji Biraay Touré bu baax a baax a baax waaye nga baal ma damaa fàtte sama sama xarit ba sama soppe ba mm-hmm. waaw borom daaru borom reeju neex ja maam Cerno waaw borom reeju neex ja bi mu ñëwee seet si ñu fii ndeysaan waaw waaw sama photo boobu dama koy xool rek ma ak moom. waaw lë lë lë lëng ba ma lëng noonu. ak ak ak ak ak tàpp tàpp tàppal gaag ree ñu neex. ndeysaan waaw ñu ngi koy ziare ñu ngi koy ziare bu baax a baax waaw di ko wàcce bu baax a baax jërëjëf oustaz ci wax dëgg yàlla leeral yu am solo yooyu. Mm-hmm. leeralaat nañu lu baree baree bari. Mm-hmm. ci kii nga xamante ni day kenn ci Serigne Touba. Mm-hmm. di kiimaan nag ci jamono. muy maam Thierno Birahim. te lii ngeen wax. daf cee bari ay point yoo xam ni. maanaam euh, benn bu ci nekk jur na questionnement ci euh, mm-hmm. bopp nit mm-hmm. dëgg la wax wax nga nu à peu près at mim gane àddina mm-hmm. wax nga nu it bi sëriñ bi dem ci géej gi moom la dénk njaboot gi te buñ ne njabootuk sëriñ tubaa xam ne tudd nañ ñu rëy rëy kan nga nu wax sëñ Moon Moustapha kan nga nu wax Cheikh Mouhamadul Fadil Cheikh Saleh mi nga xam ne moom du gone kenn ndax daa mës a wax ni sàllaaw day man fàll ku niiw fàttaliku laa waaye li may niiw néew fàttaliku bi ma ganee àddina maa ngi koy fàttaliku ndax damaa bëgg waaw damaa bëgg ngir ñu mën a estimer maanaam maam Thierno rôle bi mu joué ci wetu sëriñ bi faw ñu ñëwaat ci li ñu ko yen ni mu diise ba pare ndax kenn ku ne sa doole bu ñu la yenee mbir xam nga ku ñu yen dix kilos ak ku ñu yen cent kilos ku ñu yen tonne mu gàdd ko kenn ku ne ak sa doole te loolu yi lépp dafa am lu ko lu ko jiitu nag mooy mission bi nga xam ni missionnaire bi nga xam ni maam na doon na ko ndax balaa ngay xam lim taxawee ak nu mu toll faaw nga xam mission bi mu joué ci biir ki mu ko joué muy Serigne Touba ndax Serigne Touba dafa yor mission yonent bi sallallahu alayhi wasallam te mission boobu Serigne Saliou mii waxtaan yii fi jàll leeral leeralal nañu ni xewewul fii ndax tukki bi yàlla nga ko décrété ca ësël ndax wa sababu haybatil mubaarakati anna laaha taala araada waaye fil ëzël yi yàlla moo dogal ci ëzël ne màggal gi day am kon bi yàlla dogalee ni màggal gi day am Serigne Touba moo koy def kon faw mu faggul Serigne Touba ay missionnaire ñoo xam ni ñoom it da leen di boole ci tukki bi waaye ci wet gi ci ginnaaw lañuy taxawee mooy bu sëñ bi demee ñu taxaw hmm. kon da nga xam ni sëñ bi am na ñoo xam ne àndewul ak ñoom fii hmm. maanaam foofu laa bëgg a ñëw hmm. sëñ Fall ne man daal sàllaaw ku néew fàttaliku la waaye li may néew néew fàttaliku bi ma ganee àddina moom maa ngi koy fàttaliku xam nga kon kooku moom. beneen affaire moom beneen dimension la. nee na sëñ Mbàkke Bousso mi ngi ma mi ma tiim ak borom daaru mii. sëñ bi ne leen ñaanal leen ko. nee na sàllaaw ña ngay tari alxuraan sëñ Mbàkke ma nga tolloon ci laaya sàngam loolu moom li may néew néew fàttaliku it maa ngi koy fàttaliku mi ngi ma mel ni tey. Mm. bu ñu la njaboot googu nag la sëñ Tuubaa jël. dénk leen maam Thierno mi kon di nga xam ne loolu nekkul mission boo xam ne dañ koo préparé àddina ndax loo gàtt-gàtt xam-xam xam ne yoonu murit moom yàlla programmé wu ko fii wax naa la ko bërki démb wa tabix sabila man anaaba ilayya keroog la yàlla xotti yoonu murit ci alxuraan wa tabix toppal sabila yoon wi wan yoon mu ne man anaaba ilayya yoonu ki lay indi ci man keroog la yàlla wane ni am na yoon wu jëm ci moom mooy yoonu murit am na ku fay yóbboo it mooy sëñ Tuubaa moo tax mu wax ni minallaahi ilallaahi ayna muridullaahi ca moom laa jóge ci moom laay dellu kon aw yoon la kan ngay àndal mu ne kin na ma dem kon yoonu murit moom yàlla xotti ci alxuraan bi mu ko xottee it nag missionnaire yi ci war a bokk Sëñ Tuubaa ngi ànd ak ñoom ca kaw borom daaru mii ci la mm-hmm. xam nga yàlla ku mu jox mission ku ne mission bi boo ko seetloo day am yoom lay laltaay ay ay laltaay ma jox la ci misaal mm-hmm. alayhi salaatu wasalaam boo xoolee li ko wër li ko yàlla tànnal ca ngay xam ni missionnaire la mm-hmm. ndax yàlla da ko nam ma yónni ca wuy jur yam ko tànnal la tàmbalee kuy baayam yonent bi kuy baayam abdallah abdallah lu muy tekki bu yàlla kon baayam la njëkk jël jox ko turu abdullahi muy jaamub yàlla yonent bi wuy juróom wu jigéen nu mu tudd aminatu lu muy firi mooy ku la confiance jaamu yàlla gi jaamu yàlla gi ak aminatu ku nu wóolu ki ki ñaar ñoo ñoo meññ Muhammad alayhi salaatu wasalaam bi ñu ko waree def li ñuy tuddee nàmpali ku ko nàmpal xalima xalima lu muy tekki ku lewet ki ku lewet ki boo ko xuusee ba ci biir lu muy tekki xel ma mooy xam-xam gis nga yàlla ay mbirum lépp maanaam misaal lay doon kon nit bu ko yàlla yónni def ko missionnaire daa am ñu mu koy booleel ñoo xam ne dañuy bokk ci biir mission ku mel ni Seydina Ousmane mool gi mool alxuraan daa fekk mu bokk ci mission bi yonent bi xam nga lu tax ndax yonent bi yàlla saxalal yàllaa ko saxalal ni ko mhm. maa la yónni wàcce la ngay leer gi waaye mhm. sa mission daf cee bokk jàngale téere bi mhm. kon téere bi faa mu wàcc dëgg la alxuraan nag kitaabu lay firi lay lay indi te ba bi yonent bi di làq ñun gisuñu kitaabu sallallahu alayhi wa sallam ñun ay aaya la ñu gis yu dispersé dëgg la waaye ki ko muul ba def ko kaamil mm-hmm. kon kooku ndekete daa bokk ci biir mission bi alxuraan nga koy tudd jox na ko ko yonent bi la moo ko def mm-hmm. waaye mi ngi ko defee ci Sidna Ousmane mm-hmm. ndax dégg nga wax ji baax kon missionnaire dafa am ñu koy gunge Serigne Touba bi yàlla nammee feeñal yoonu murit gii nga xam ni Serigne tubaa nee na sama wàcc fii ci kaw suuf du lu ma sàkku rek wàcc yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo dem ba ci yàlla sàkku ci moom man Ahmadu ma wàcc loolu sëñ bi da koo bind rasulullahi raama sàkku na kan moo sàkk mu ne rasulullahi yontu yàlla muhammad lan la sàkk mu ne balaa ma leen di wax lim sàkku dama leen di wax fi mu ko sàkkoo min ilaahi ci yàlla la sàkku lum sàkk mu ne kaw nii ma nekk xaddiimahu xaddiimu rasul ab liggéeykatam wa abdullahi ak jaamub yàlla kon xam nga kon sëñ Tuubaa fa mu takke garaatu xaddiimu rasul ak fa mu doone la mu doon ba màggal gi xew ba mu tukki loolu du àddina loolu moom leeroon na ci ci waxtaan yi fi jaar boobu nag la ko yàlla booleel booleeg ay missionnaire li ma wax naa ci indi firnde ku mel ni sëñ daam Abdourahman Lo sëñ tubaa àndewut ak moom fii ku mel ni maam Cheikh Ibrahima Fall sëñ tubaa ak moom fii ku mel ni euh, nu mu tudd maam Cheikh du murit yu sëñ tubaa àndal fii ña ma nga ànd ak ñoom ca kaw ku mel ni sëñ Mor Ndiaye Erine moom laa la ciy jox missaal sëñ Mor Ndiaye Erine daa bay junni bëri koy gerte ñëw jëbbal ko sëñ tubaa sëñ Tuubaa ne ko Mor mu ne ko Mbàkke mu ne ko eh, eh, gerte gi ñu ko bay ñu ko bay mu ne ko Mbàkke tàmbalee lim sëñ mu bàyyi sëñ bàyyi ba mu wax bay waaj a yeggal sëñ Tuubaa ne ko kenn bayu ko ci ñoom fekk ba ma ngay tàmbalee diw diw diw sëñ bi ne ko kenn ci ñoom bayu ko maa ko bay sëñ Mor ne tekk di xalaat deqi ba mm-hmm. ña dajale ña naaf ña def ci saaku yi ak ña ko indi ñun ñëpp ci mbay mi lan bokk sëñ bi ne ñoom ñëpp kenn bayu ko mu ne tekk di déglu sëñ bi sëñ bi ne ko ba ba ngay gone ma lay fekk daaray moor baraama jaxate nga may foraatul ay jiwoog yu ni mel na nga xam ni booba dara andiwu ma woon ci ci ci daara ji lu dul jël si la yow mii ndax yàlla wan na ma la ca ësal ni ku baax nga ma boole la sama ñooñ keroog laa jël jiwu gii jiwu doxale ko sama digg yow kon xam nga kooku missionnaire la mm-hmm. ndax sëñ Tuubaa na ca ësal laa la tànn al arwaaxu ba ma lay tànn nag la ma njëkk a def mooy jiwu gii laa doxale sama diggante ak yow moo tax bi ñu wàccee ci àddina nga féete ma fa di ma ko defal kon sëñ missionnaire am yi defaluñ ko dara. yàllaa leen ko dogalal ca kaw ñu féete ko féete fa sëriñ bi kon xanaa doy na nga xam ni kon mission maam Thierno en tant que missionnaire daa bokk rek maam Thierno Ibra Faati rek. Mm-hmm. kon kii missionnaire la bu yàlla tànn mu am rôle bu mu war a ci wetu Serigne Touba. Serigne Touba nag ban mission la mooy mission yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la yor su boobaa ngay mën a commencé estimer nag à peu près. Mm-hmm. la la dimension de la mission. Mm-hmm. de maam Cheikh Ibrahima Faati. ca ngay xam ni kon lii mu dugg. ak lii ñu ko dénk lii du yëfi nit yàllaa lay kàttanal mm-hmm. ndax dégg nga wax ji mm-hmm. ku mel ni sëñ daam Abdourahmane Lo waxuma la sax jaayante mm-hmm. gim jaayanteeg sëñ tubaa waaye sëñ tubaa daa jaayante ay atam ndax ku ne xam na ni bokk na ci bokk na ci ñi sëñ tubaa njëkk tànn wax nañ ni sax far bi ko yàlla associé ci mission yonent bi ruug sëñ daam la njëkk tànn ne ko caste yàlla ne ko am nga gis waaye ruug yi nag dogal da la cee jiitu mooy daa war a judd faatu sëñ Tuubaa yàlla ñaata at nga ma tànnaloon ci kaw suuf ak ñaata at nga ma tànnaloon fii mhm. mu ne ko ci kaw suuf sii maa ngi la fi tànnaloon lakkum lakkum lakum lam mhm. la keef 20 mim 40 muy 90 sëñ Tuubaa ko jox naa ko sëñ daam moo tax sëñ daam dund 90 ans mhm. ndax dégg nga wax ji xaalumul arwaax gii nga nekkoon naka jekk nag mu ne ko fii lëxum laa la fi tànnal lu la soob mooy soixante-quinze ans sëñ Tuubaa jël lëhum googu def ko ati àddina moo tax sëñ bi dund loolu mu dund kon xam nga ne am na ñoo xam ne sëñ bi àndiwut ak ñoom fii maam Thierno mii ca la bokk kon ca ngay mën a estimer nag la dimension de la mission de maam Thierno Ibra Ibrahima Fati mhm. ndax tukkib sëriñ Tuubaa bii ñi ci sëriñ Tuubaa te sëriñ Tuubaa missionnaire bi yamuñu foofu de soxna Jaara Buso hmm. ci ñi yàlla associé ci mission sëriñ Tuubaa bi la bokk moom soxna Jaara moom soxna Jaara ñaari yoon nag Hmm, ban ak ban moom daa àndeek ak Serigne ci jëmm. Hmm. ànd ak moom ci ruux. Hmm. ànd ak moom ci jëmm mooy yàlla jaarale ci yow ku toll ni Serigne Touba. mu nekk ku ñuy tuddee parental jëfe kiimaan yu toll yim jëfe waaye yàlla dénk la nag nga nekk jigéen ju ba mën a noppi. moo tax li ko yàlla njëkk a tudde mooy jaaratullaahi dëkkandook dëkkaaleb yàlla waxoon naa la aminatu ku nu wóolu waaye jaaratullaahi nag mooy kii dëkkaaleeg yàlla mu joué mission bi muy joué ci Serigne Touba ba keroog sëñ bi war a dem keroog bi sëñ tuubaa bindee mat Matlabul Fawzayni ba gisanteeg yonent bi fii ci Daaru Xuddoos yaa ngi dégg ba war a takk nag ba yonent bi xamal ne ko léegi nag pareel nag mission bi léegi mu tàmbalee dama koy tënk sëñ bi daa toog Touba di xaar nattu yu wàcc ndax booba yonent bi xamal ne ko lii nga bëgg ay nattoo koy wotti sëñ bi toog di xaar nattu yu wàcc yonent bi ne ko fik yaa ngi Touba gii benn nattu du la fekk mu ne ko ah lu tax mu ne ko yaa bind sa xasida muy mat la mu fausé ni wax ci li nga ci wax lépp wax ni wajxal xarimana xariman amina wa kum bi xifsihi kafilan daamina wa maskanan li dafa kulli dayri wa maskanan li jalbi kulli xayri kon Touba gi nattu yi du la fekk boo bëggee nattu yi wàcc da ngay génn Touba muy benn condition ndax yaa ngi dégg wax ji waaye am nañu waroon a jiitu waroonoo fekke mission bi sëñ Touba bi ku mel ni sëñ Ahmadou Bousso ndax dañu ko sa nijaay Ahmadou Bousso mii toll na ci yàlla foo xam ne bu nattu yi dee wàcc bu nee yàlla na natt yi arrêté benn natt dootoo ko jot ndax kooku lu mu ñaan yàlla def ko te boobaa liggéey bi yàqu kon faaw mu jiitu kooku ci missionnaire u sëñ Tuubaa yi la bokk <laughs> ndax dégg nga wax ni soxna jaaro Bousso falee mu jiitu moom tamit ndax bi yàlla la bu fekkee yàllay nattu sëñ Tuubaa bu xol bi ne yàlla teggi nattu yi mu jiitu waaye bi mu jiitoo it daa ànd ak sëriñ Tuubaa ci ruu maa ngi lay bëgg a wax loo xam ni mooy teeñ bi maanaam mooy laltaay bi ngir bu conférencier bi ñëwee mën a waxtaane maam Thierno waaye damay damay étayer tuuti dimension spirituelle bi mission maam Thierno am Sëñ Tuubaa lii ko yàlla def defewu ko ko àddina ñi ñim koy àndal ci kaw suuf àndewut ak ñoom àddina ca ësël la ànd ak ñoom moo tax ku ci wàcc mission bi mu lay jox da nga koy joué ba mu rafet waaye dama ni koo xam ne amagoo 34 ans ñu dénk la njabootuk Serigne Touba gi sëñ bi dem ba dellu si lu la dénkoon ràggul réerul ruurul xam nga ni kàttanal nañ la kooku missionnaire la moo tax mu bëgg a taxaw ci ñi sëñ bi def ay missionnaire ci biir mission bi ndax dégg nga wax ji te loolu loolu maanaam l'islam ci boppam moo ko nangu loolu l'islam moo ko nangu loo gàtt-gàtt xam xam ne Ababacar yàlla da ko associé ci mission bi yonent bi Seydina Ali keroog bi yonent bi di génn war a dem war a gàddaay dem dem Madinatul Munawwara alin la woo mu dikk mu ne ko kay tëdd sama lal bii mu nekk ne ko tëddal ni ma doon tëddee sàngool mbàjj mi ma doon sàngoo ngir bu ñuy raye raye la kooku ci mission bi la bokk Ababacar ci mission bi la bokk moo tax mu dugg ci biir xunt ma ba alxuraan di leen tudd yaa ngi dégg wax ji maa ngi lay bëgg a wax nag kon ku yor mbirum yàlla daa am ñu ñoo xam ne yàlla dala ko da ko koy tànnal dëgg la soxna jaara daa bokk ci ñu yàlla tànnal sëñ Tuubaa muy jouer mission balaa maa ñëw ci borom bis bi dangay xam bu baax kon valeur li mu yor lan la soxna jaara daa ànd moom ci jëmm ànd ak moom ci ruu bi sëñ tubaa bi ñu ko dugalee ci kàmm gi nee na xut bu boo xalaat dikk na fekk ma fa ne ma ah góor yàlla bu mu bu mu sa toll ci nattu ba nattu ya tar ñun kat dañuy ñëw xittali la bu ko defee loo am ñu am ci sëñ Tuubaa ne leen ndax seen digalu borom ngeen ñëw hmm. ñu ne ko déedéet mu ne kon bàyyi leen mag yàlla daa def na Ibrahima defoon sëñ Tuubaa nee na tooguma lu yàgg lu mooy rek loolu sëñ Abdou Lahat ko nettali ci rajo Sénégal ñëpp a ngi hmm. nee na am loxo bu ne ko cas yëkkati génn ko kàmm gi teg ko ci bitu kàmm gi ne ko doxal wéyal sab liggéey sëñ tubaa nee na bi ma geesoo muy loxol soxna jaara xanaa kooku daa am mission ci biir mission sëñ tubaa bi mm. te booba soxna jaara làqu na kon xam nga kooku ànd naag moom ci jëmm mm. ànd ak moom ci ruu mm. léegi nag lii nag boo ko xasee xam nag ci ngay xam ne kon ndekete mam Cerno mii mm-hmm. li tax mission bi mën a diise nii ba noppi mu yenu ko mooy sëñ tubaa tànnewu ko fii benn mooy biñ lay dénk yoon bi yow fanweeri at ak ñeent ngën kaa bari moom nga am mm-hmm. ñu dénk la responsabilité bu toll ni sëñ Tuubaa yëkkati njabootam gi jox la ko. muy benn ñaareel ba mooy. mën a boole xuus ci téere yi lool. kenn daq koo jàng. néew na sax nag néew na maanaam. kun ko mën a tëkkaleel ci njàng amul moom maam Thierno bi xam nga lu tax. moom daa boole ñaar. daa boole xilmul kutubiya. ak ak xilmul ladunniya. muy xilmul kutubiya mooy xam-xamu téere xilmul hmm. ladunniya nag mooy xam-xam boo xam ni yàlla la ko defal jaarul ciy téere téere bu mu mës a ubbi laata muy jàng ba mu jeex suñ tubaa fekk si ko ca téere ba sol ko ko ba mu jeex kon daa boole ñaari ñaari ñaari xam-xam hmm. léegi leneen li mooy buñ lay nettali histoire maam Thierno yow hmm. ak fi mu jaar xam naa loolu dina ñëw ci ci ci kanam sëñ Sall dina ci ñëw buñ lay nettali histoire maam Thierno ak jaar ak tubaab bi ni mu nekk woon ci wetu suñ bi yow da ngay foog ni maam Thierno amutoon xëy waaw ci sëñ bi rek lay xëy. Hmm. ndax dégg nga wax ji. Hmm. da nga naan Thierno maam Thierno kon amutoon jot. moom ci sëñ bi rek lay xëy di ci gont. mbaa yëg nga ni kii ku ko gën a mag ci wàllu cultivateur amul. moom moom xam nga lu koy dëggal. waaw mooy réew mi moo am xam nga boobu tubaab yi ñoo ñu coloniser. Hmm. ay canton moo fi nekk. waaw yi tubaab bi moo leen di jox dund. ca yooyu jamono ay chef de canton. ku ne tubaab bay lay jox dund dañoo njëkk ba yàgg lu mel ni bekkoor am ci réew mi mooy pepp amatu fi kenn amatul loo lekk maanaam baykat yi dañoo jaay ba jaayaale li ñu waroon jiwee li waroon a jiwee lépp lañ jaay kenn amatul loo dund kenn amatul loo jiw xam nga tubaab bi ku mu bind lettre lettre boobu moom kenn rek ku mës a recevoir muy maam Thierno Ibra Fati jox ko président déedéet jox ko gouverneur maam Thierno Ibra Fati la jox lettre bi xam nga lu muy sàkku ci moom mu ngi koy sàkku ngir ngir ñu am dugub bu nu dunde pepp bu nu dunde kon gis nga ni mu taxawe woon ci wàllu taalube noonu la taxawee ci wàllu sur le plan temporel moo tax c'est un exemple mooy dafa jekku ak taalube lool doon kaang doon fóore bokk ci wàllu yu Sëñ Tuubaa yi waaye nag daal di jekku mbirum àddina kii buñ la nee ca yooyee jamono millionaire la mënoo koo xam ndax booba tubaab bi dani ko yow yaa ñuy jox pepp yow waaye maam Thierno bi mu ubbee sàq mi maa ngi ne tubaab bi daa tiit ba ni ko boo ñu waroon a jaayee saaku ñaar dërëm dërëm nga ñuy jaaye ndax yëg na ni moom lim soxla woon ngir réew mépp maam Thierno mii mi ngi ci loxoom waaye léegi yow nit ku am dimension bu toll noonu xam nga ni kooku Serigne Touba tànnewu ko fii balaa ñuy ñëw nag ci relation diplomatique bi mu doxee diggam ak tubaab bi mhm. nga xam ne ba Serigne Touba yónnee mhm. dafay bañ ñëpp yónni ko mhm. maa wax la benn mbir rek daaneel mooy bi muy yónni maam Thierno fekk ba maam Thierno day nekk liggéey bi saa su ne maa ngi ñu am nañu dikk ne ko waaw comme da ngay dem ci tubaab bi nag da ngaa war a laal nag ay jesneer suppi yaa ngi dégg wax ji ah. mu dikk ne leen sëñ bi gis na ku ne fa nga taxaw ak na ngay soloo waaye man ni ma soloo ko neex mu yónni ma comme xam na ni nii laa soloo ngir ne ci waar wi kon nii lay demee mu woon ne ma soloo la ma xam ne boobaa li ma sol neexu ko ba mu demee ci tubaab bi wax ak moom ba yàgg tubaab bi booba foog na ni sëñ bi dee xëcc ci nguur nangam nangam ba maam na waxee ak moom ba pare ci wàllu diplomasi hmm. dañuy kii ma gis ab sëriñam àdduna ñor ko ndax kii benn bu dee alal am na ko. waaw waaye xool ni mu solo. ki àdduna ñoru ko kon kii comme ne sëriñam xëccawul nguur xëccawul nguur ndekete ca colinam nga la tubaab bi di yëgéen ni sëñ tubaa soxlawul li gis nga boobu gis nga boobu xekk ma ak boobu xam-xam kon nag balaa sunu gan gi di ñëw loolu rek lañ doon cofandi ci waxtaan wi te di la delloo kàddu gi seen Ousmane tarkalla mi ngi noonu sëñ bokkaar fi nga daan le moom solo loolu la hmm. ndax euh, loolu day lu moto bàyyi xel nga xam ni kon euh, sëñ tubaa ku ci nekk ci ñoom hmm. dalaa préparé sëriñ Saliou hmm. maam Thierno Ibrahima Fati mu bàyyi la tarkal la comme gars yi bind nañu la ponk yi nga daal di développé rek incha allah. waaw maa ngi sant bu baax nag ci sama gars yi ubbi gu am solo gii nu ubbee ci jàmbaar yi Serigne Touba mag ji jàmbaar yi lislaam ji. Mm-hmm. maam Thierno Ibrahima Fati El Hadj Daouda def introduction ba am solo xamal nu kan mooy maam Thierno. Mm-hmm. xamal nu taarixam ab mm-hmm. juddoom waaye njàmbaaram. waaye responsabilité am waaye ni mu doonee référence fii kulli fànnin mm-hmm. waaye alaaji Babacar it sof ci lu ama am solo mm-hmm. mooy loolu kat boo gisee mu mën a ne mooy ko waajal la mm-hmm. wattaay wi it wattaay wu sori la woo xam ni la yonent bi waxoon wala ñeneen ñi ne asar la mooy kullun mu yassarun li maa xuliqa mooy koo gis ku ne la tax nu sàkk ko loolu day jàppandi ci moom ndax loolu lañ ko muulaale kon bu nu comprendre da ngay xam ne kon dañ koo sàkk en tant koo xam ne day nekk missionnaire ci biir mission Serigne Touba bii dugg ci mission rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bala ma cee sofi kàddu sax may ñaanal Serigne Bassirou Anta xalifaam bu baax bi yàlla na fi yàgg loolu tànn ak wér ba naal ya mag ña naaloon mu yeggale ko yeggale naali boppam ànd ko njaboot geeg taalibe yi siyaare borom daarul moxti sunu soppe bu baax boobu waaye Cheikh Ahmadou Kara Mbacké sunu sëriñ sunu soppee noo ngi koy ñaanal mu yàgg fi lool te wér di siyaare njaboot ga di jël siyaar bépp di ko teg ci loxo al amin ak loxol suñu ahmada waaye alaaj Boubacar li nga wax te mu fekk si lii sin daawu da wax rek moo ci nekk Ceerno Ibra Faati da nga koo mënta xam te fekkul nga xam dara ki Sëñ Tuubaa waaw Ceerno loo gën a xam ci Sëñ bi rek di gën a xam ci Ceerno hmm. ndax mbirum no mbirum Serigne Touba lay feeñal. Mm-hmm. waaye mbirum Serigne tubaa yi mooy tàppe ci mbirum cerno cerno amul Serigne Touba am. Mm-hmm. cerno benn parti la benn manifestation la ci li Serigne Touba doon. Mm-hmm. looloo tax fu ñuy tudde Serigne tubaa rek mënoo daaneel te waxaale woo cerno. te loolu li ko dëggal mooy li mbax xam nga Serigne bi nee na suru fii maxan. wajjahatuha xabla li nabi waaye bi maa faaxal mun naa saarakaan yet asu nee na moom ndap yi nga xam ne ñoom la àndal mooy gaayam yi duyewuñ leen fii mm-hmm. nee na ñu leen duyee fan ko waajale rek fa lañ ko waajalaaleel mboolem mi nga xam ne ñoom lay àndal mission bi nga xam ne moom la am moom Serigne Touba maam Thierno Ibra Fati nag day kenn ci ñoom doy na sëkk rek ku toll ni Serigne Touba wax ne Thierno day xaddu dil ay mani mm-hmm. su ma doon am bras droit ni ngeen xam ne Thierno mooy sama loxo ndeyjoor kooku Serigne Touba ko ko tuddee nit ñi tuddewuñ ko ko Sëñ Tuubaa moo ne cerno mooy loxo ndeyjooram loxo ndeyjoor nag li mu signifié kenn ku ne xam na ko mooy koo xam ni dara loo ko gën a jege amul te loo loo waroon a yëkkatil sa bopp sax boo ca amee ngànt moo koy yëkkati waaye loo waroon a def it boo ca amee ngante moo koy def maanaam foo waroon a tooge fu ne bu ngante ñëwee mu man la faa wutu te mat ko fa sëkk kon loolu Sëñ Tuubaa rek ko def muy Cerno Ibrahima Faty waaye doy na aw way Sëriñ Tuubaa ne Cerno day lam xaalif nii fii siqarihi wala fii kibarihi mësta wuute ak man moom Thierno moom ci ak ndawam ba ci ak magam xam nga say taalibe sax bëgg la waaw sopp la mhm. am ci yow rafet njot mhm. ba ni moom de mësta wuuteeg Sëñ Tuubaa mën naa ne te du tee mu rëy moom de ci bëgg suñ tubaa rek la mos a nekk tàmbali ba dañ ko noppee gisee loolu taalibe mën na ko waxalub sëriñ mhm. sëriñ bu defee njort ci diggam ak boromam sama na ko wax mhm. waaye sëriñ tubaa seereel la ko ma neen xaama la mhm. sëriñ moo seereel ne xaw ma kan waaye cerno moom mësta wuuteeg man cig ndawam nag ba cig magam te moo ne day bi ñuy wax naan sabiyan sabiyan walaw kaana nabiyan ndaw moom ndaw la doonte ab yonente la nga xam ne ndaw moom def defoon yëfi ndaw sax du wàññi dara ndax dañu xam ne ndaw la sëriñ tubaa nee ne cerno moo mës sa nekk ci lu ma bëggut ci ak ndawam ba ci ak magam ceerno serofot moom li ma dala ko dal yaa xëy na maahi maha junaahi mahal misaahi waxta sabaayi man yàlla ba mu bëggee ma doon li ma doon rek la ma def li ma def li ma doon ci sama ndaw ba ci sama mag Sëñ Tuubaa at yi juróom-ñaari atam ak bin koy noppee gis wuute wunu ni mu toll rek la toll ni mel la mel ak matam moom daka jekk da di mat rek loola nag la wàlla ceerno da koo feeñal ci ceerno nee na ceerno mësta wuuteeg moom ci ndawam ba ci magam te mën na koo seere ndax lam yu faarix nii fii siqarihi wala fii kibarihi lam yu xaalif mooy muxaalafa lam yu faarix mooy mu faaraxa ñaari mbir yi bokkul la mësta taqalikook man itam cig ndawam ba cig magam fi ne kenn ku ci nekk dañaa at sàngam lañoo ñoo jébbalu diw at sàngam la ñoo hmm. cerno kenn mënu ko waxal loolu cerno moom ba bay cerno rek lay cernoom sëñ Tuubaa ñaari kon moom moom sëñ bi dafa mës a taqoog moom rek nag ndax moo ko waxal booba mësta tàqalikook man ku mësta tàqalikoo nag moom kon amul instant boo ñëw wallaay amul ab naan moom bii nga ñëw ak kii nga déedéet cerno cernom sin bee ba muy cerno na lay cernom daam feeg ngi daam cernoy cerno moom cër boobu la am loolu loolu la ko Sëñ Tuubaa defal mm-hmm. moo tax mu mësta tàqalikoo man ci ak ndawam ba ci ak magam nekk noonu mësta wuuteeg man ci ndawam ba ci ak magam te maam cerno ci côté boo mën a jël da lay wan ne Sëñ Tuubaa amul morom fi ne doon sëriñu Cerno rek doyoon na. képp képp maam mat maam Cerno ab sëriñ Sëñ Tuubaa kat bu nee amul moroom ñu ne lu tax amul morom ñu ne ki mat maam Cerno ab sëriñ. ki nga xam ne maam Cerno moom fas yéene wuta doon lenn ci moo lu ab donga. Hmm. kooka daal amul morom rek ñu ne dañoo war a tekki baas yi ñibbi. xam ne vraiment nag njëbbalu Cerno ku ko ñemee jël hmm. yow bu nii amul morom dëgg la ndax maam Cerno daa dee jamono boo ko jëlee ci xam ba moo raw ci réew mi na ñi fi raw la jàngal Ah, boo gisoon Sëñ Fallu ay waayam. da ngay xam ne Sëñ Fallu ak Sëñ Moodu Mustafaa ci réew mi. wallaay dëgg xoolal Sëñ Fallu xam nga Sëñ Fallu moom kenn du ko présenté di kenn. déedéet Sëñ Moodu Mustafaa kenn du ko présenté di kenn. ku toll ni Sëñ Fallu nga xam ne moo raw ñëpp ci biir ak ci biti. Mhm. ne Cerno noonu yar ban ne ar. Sëñ Fallu ne ja Cerno noonu jàngal ban ne ar. Mhm. mu yar nu ban ne nër. déggoo ñaar yooyu. waaye Sëñ Fallu digg. te defal nank nit ba la laa mën a jàngal ba nga ne ar. Ah. day fekk ma raw la raw sëñ Fallou rek ku leer a wut mënu laa jàngal ba nga ne ar te joxut dañoo jàngal ban mokkal di ar. ar buñ la waxee damaa jàng ba ne ar. Hmm. mooy koo xam ne fekk bu yëpp tëj nga ko. Hmm. jàng na li ci biir téere li ci gannaaw téere. te te sëñ Fallou nee na ar Cerno na ko def. Hmm. c'est kan mooy Cerno. waaye yëmu ca mu ni Cerno nu yar. dan ne nër. te bala laa nit a mën a yar gën laa yaru. xanaa xamoo sëñ Tuubaa sax ci ngay xam ne amul morom. njëkk teg ci ne cerno yeenu ban ne jar. te nit bala laa yee ba nga ne jar da lay njëkk a yow. Ah. waaw doomi Serigne tubaa nga man koo yar ba ne ar. Hmm. jàngal ko ba mu ne ar boog. Ah. yar ko hmm, ba ne nër. noppi. yee ko ba mu ne jar. ko yow yaa njëkk a arre njëkk jar jarre njëkk a nërre. Ah. li tax car cerno man ko nag. mooy cerno daama ko jàngal ba mu ne ar. Ah, waaw waaw ku daam jàngal nag doy na nag. waaw daamit moo ko yar ba mu ne nër. waaw góore waay micro bi. micro bi. demoon gannaare. cerno demoon ndar ah, o demoon gannaare mawtu dam keroog fama kebaare mam cerno demoon gannaare demoon gannaare mawtu dam keroog fama kebaare daal yu tarkal la si nga newoon baax na de boo gisee nag mam cerno ah. mën a yar doomi Serigne Touba yi ban ne nër jàngal leen ban ne ar yéeneen ban leen jar bi Serigne Touba naree ci moom loolu la ko ko njëkk a defal mhm. daam ci yëmmi boppam moo tax ko cerno jàngal ko ba mu ne ar te ni mu ko doon jàngale sax junñu na ko alaaj Boubacar loo loolu loolu la daam mës defal kenn cerno nee na hmm. Serigne mësu mosu koo tàmbalil ab téere cat la ba ca bopp ba ah. ñu ne ko ah kon nu muy def mu ne damay jàngal ba mu xaaj mu ne ma li ci des mbokk dimbalee na ko mbokkam. allahu akbar mës nga dégg mbokk dimbale na ko. mbokkam mooy sol nag ko. nee na mës tam tàmbalee moom ab téere bopp ba ba ca cat la. kutu bi yàgg la dund yàlla. koy jàngal ba mu xaaj mu ne ko li ci des. mbokk dimbalee na ko daam ber na coono loxo de parce que da ko doon waajal ndax daa am mission bi mu koy def la boo xam ne faaw mu beral ko loxo. Hmm. ngir mu mën a def loola. waaw. te maam Thierno am na lu mu ca teg de. <laughs> Ah. nee na lam ma jàngalut. laay ah. gën a dégg ci lam ma jàngal. mu ne. lam ma jàngalut. laay gën a dégg ci lam ma jàngal. lam koy dimbalee ndax. lam ne ko mbokk ko dimbalee mbokkam ndax li tax mu ne ko mbokk mooy ñoom ay frère lañu. bokk bàyyi ndax ñoo bokk bàyyi. ne ko eh, li ci des mbokk dimbalee na ko mbokkam Thierno nee na. loolu nga xam ne tëralalu. waaw da ko mbokk ko dimbalee mbokkam. moom lay gën a dégg ci lim ko tëralal ndax lii def ko jaaraleel ci form yu nit lii mu defale ko ci lim doon mais eh, kan mooy daam. sëñ Tuubaa moom moo amul morom li ma tax xam mooy daam. wallaay daam déedéet xam nga mën a dimbilee sax mbokk. waaw loo ko jàngalut loolu rek nga war a xool lu mu. Mm. waaw déggoo ma de. jàng ba mën a jàngale di tëral la nit ñi téere loolu ah. garaa kuy kuy fóore ku ne man nga ko nag yooyu waaye jàngal nit ba yàgg nga ne ko li ki des maa la ko dimbile ku man def ko xool déedéet daam ci yëmi boppam fa nee naa la loo gën a xam daam gën a xam cerno wallaay cerno ngi feeñ de waaw déedéet cerno ci yëmi boppam day feeñal manuk daam Ah. waaw dama laa bëgg wax ne sax seen fàll ne dañoo jàngal ba ne ar ar ci jëm boobu mooy ay caaxaan luy ar ar moom gis nga ku daam dimbalee wut lam la dimbalee doo mën a defal sin faalu ar ak si mooy Moussa ak si mooy waaw kay ndax dégg nga ma la wax waaw loolu dafa am xam wallaay dëgg la dëgg la <laughs> dëgg la sa dafa garaaw moo loolu la ko doon defal mësu mm-hmm. ko àggalee def téere loolu nag doo dégg ko nettaliwaat ci Sëñ Tuubaa daam moom daam moom Ceerno dong la ko defal nag moom waaye moo ko yaral boppam maam Thierno xamul ku dul Serigne Touba moo tax ay jikkoom la def ci moom gisoo seen Musaa Ka dane ko soo fekkoon ni Serigne Touba yonent bi la ngay Seydina Aliyu ah? waaye su doon Moussa yaa dem Haaruna allahu akbar da ngay dellu ci lislaam nag wallaahi xool Seydina Aliyu lu mu doon ci yonent bi hmm. xool Seydina Haaruna lan la doon ci Moussa ah. qaala rabbi israh li sadri ah, wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli hmm. wajhal li wasiran min ahli Haaruna aqi isdud bihi azri wa asrikhu xola fii amri kay nusabbihaka kasiran wa naskuruka kasira innaka kunta bina basira xaala xada uti rasulaka ya Moussa wala xada mën na naa aleyka maratan noxra te gis nga tur ko tuddee sax dafa bari Seydina Moussa dane yàlla man kan yónni nga ma te ki nga ma yónni daa ma ma war a communiquer moom communiquer gu leer hmm. ndax Firawna ku mën a communiquer la te ca lañ yónni Moussa hmm. Firawna moo dàq communiquer ci jamonoom moom Firawna Firawna boo mënta communiquer ma daaneel la ci communication moo tax gisoo Moussa dama lay li si Moussa ko wax waaw yaa ngi dégg bu fekkoon ne mooy Moussa nga dem Haaruna hmm. bu doon yéen sëñ Tuubaa yonent bi nga dem Aliyum ma bëgg laa wax nag rôle lu Haaruna ci Moussa nga dégg ne ko sëñ Moussa ko kon junjee maam Thierno nga xam dimension maam Thierno Moussa ko mooy rek eh, daam ay daam daam yi yëf yi yaa ngi dégg daam la kenn xamul lu mu doon waaw yow tamit ferey daam rek ñoo man waa jamono moo tax suñ bay jaxat ne ëllëg yomal xiyaam nga xam ne sa taalibe ya woon ñoo man sëriñ sa woon te nee na bu ëllëgee noo xam ne wax ji lu wér la woon rendez-vous bi nag suñ bay jaxat ne waxuma ko fii ndax toolu daa bari nan dem ba yomal xiyaam mm-hmm. dañ naan daam toogal ne ana say fere ñu ne ñu ngi nii ñu ne ñoo man gars yi fañ ci ma tas mm-hmm. loolu la yàlla dogal yaa ngi dégg <laughs> gis nga Haaruna uh-huh. xam nga Firawna ku mën a communiquer la moo tax la ci benn misaal rek bi bi yonent yàlla Moussa ñëwee ne ko yàlla ma yónni dana ko wa maa rabbul au lieu que kuy yàlla de. pour saboter ko luy yàlla. Eh. luy borom bindee fi. da doon saboter. waxu ko man rabbul alamin de. mën a communiquer tax mu ne ko maa rabbul alamin oustaz. réeral na ko yàgg bëgg koo réeral. dafa mën communiquer da lay réeral moom Firawna waaye nag yàlla dafa waajal Moussa moo tax du ah. juum communication. Hmm. moo maa rabbul alamin moom dafa jël rësigam rek rabbu samaawaati wal ardi wa maa baynahuma in kuntum muuqinin. Hmm. mooy ki moom asamaan yeeg suuf ak li ci diggante bi ci ñi gëm te wóolu fira xoola firaxa naa ngi koy defiyee daane li man xawlahu ala tastamixoon <laughs> mbooloo mi yéen ngi dégg ci wax yi muy wax ak ngi dégg de waaye chaque jour logique bi Moussa yem ci lay continuer xaala rabbukum seen boroom xam nga rabbul alamin lay continuer moom duggul ci sabotage waaye dégg leen kii li muy wax mu naan ko lan laa wax da di ko perturbé perturbé wu waaye kee comme yàlla da koo waajal day continuer lu si gëm rek rabbukum wa rabbu abaikum lawalin allahu akbar a ngi dégg Firxoon na waat waaye inna rasulakum lasi ursila ilayka la mañ noonu eh yéen seen waa ji di woote yónni nag ah. gis nga de xam nga da ko bëgg a defee waaw waaye mi ngi continuer moom toppul toppul Firxoon déedéet rabbul mashriqi ah. wal maghrib man ca rabbu ja rek loolu nag yàlla da ko teel wax ki ngay communiquer dafa mën communication dem na ba te bi sax mu ne ko yow alam nu rabbika fiinaa walidan wala bista fiinaa min humrika sinin yaay booy bi ma yoroon ci sama kër gii de eh. dégg nga de eh, nga def at yi nga fi def ma yoroon la waa man la mu ne waa tekk ba yàgg une minute moom moom Firawna xaala faxaltuha yaw wa maa xaala san faxaltuha wa na mina daalin yaa fi defoon yi nga fi defoon sax de eh. waxu ko li fi defoon alam nara dëkk fii naa walidan waaw wala bés ta wa faxalta faxalataka lati faxalta wa anta minal kafirin te sax yow yaa fi defoon yi ngi fi defoon ah dé fi ne mi peut la ne ah waa kii mu fi defoon waaw waaye moo kii lu mu a communiqué gi au lieu que mu wax li mu fi defoon waaw ko te sax yaa fi defoon yow affaire boobu yaa fi defoon ku ne sa xel di ñaaw ci la la waroon def kooku dafa mën a communiqué moo tax na bi làmmiñ wi dootamee ci sababus mu lekk mhm. euh, xalwa dana yàlla ah ki nga ma yónni dama koo xam daa mën a communiquer kon mënatut a ñàkk yónent yàlla Haaruna sama rakka nga defal ma ko ab yónent dégg nga de ndax moom day huwa afsahu minni lisaanan moo ma gën a leeru làmmin wa arsilhu mahi riddan yusaddiqni inni ngir mu mën a dëggal li may woote kenn bañ ko mën a weddi Moussa moo demandé loolu Moussa yi demandé ci biir mission am pour mu mën a réussir pour kii lim la wax ne la Sëñ Tuubaa kon bi ko yàlla naralee mission bi la koy wutal nag ay éléments yoo xam ne ñoom lay àndal ngir réussir mission bi. sëñ Moussa Ka ne ko bu doon Moussa yaa dem Haaroona naam. yaa ngi dégg li ma la wax ba tey. Mm-hmm. moo tax déggoo sax wa asrikhu fi amri yi associel ma ko ci sama mbir. te amru mbirum yonente la amri yi sama sama mission. Mm-hmm. damaa bëgg nga associel ma ci Haaroona kay nu sabbihaka kasiiran wa naskuruka kasiiran mm. ngir li nga bëgg ma man koo gagné. Hmm. loolu la ñuy tuddee accréditation. accréditation boobu nag. Hmm. Hmm. demee Touba lépp lu fa presse bi di def. loo fa am droit def rek. daa fekk ni ñoo yore communication màggal bi ñoo la accrédité pour nga mën faa samp sab tànt très bi lii la sàkku nag ci Seydina Haaruna kor gée nga léegi nag mu ne ko nag bu fekkoon ni sëriñ tubaab mii waaw Moussa la kon da yow Cerno yaa def Haarunaam gis nga kon xoo ma loo fa dégg gis nga Seydina Moussa ni mu wanee ne mënumaa ñàkk Haaruna mm. pour sama mission am ci li ma ci bëgg am ah. loolu la si Moussa bëgg a wax mm. ne la Sëñ Tuubaa bu fekkoon daa am lu mënta ñàkk Cerno wallaay macha Allah waaw waaw parce que aller le tour la day dem mm. te bu demee dafa war a gañe foofu waaye ginnaaw gi tubaab bi bu fekkoon ni sin bi daa dem toj foofa mu dem ci ginnaaw li defaroon yàqu sin bi kon damuy assuré fee war na fee i comme waajal ba mel ni moom muy assuré fii ba mu fee tojee day fekk fii dara du yàqu ñu mën a noos waaw bu demoon fee mu defaru dikk fii yàqu day tàmbaliwaat màggal ko du mën a gën am ndax li yàqu la ñu war a defaraat day retard <laughs> déggoo ma de day retard ku sécuriser mbir mi mm. bay jot defaroo du yàqu daam dem defari fa defaroogul yaa ax la barri yaa ax la bëri mën a am ndax barru jag jag na ba nopp daa war a dem ci baxaru waaye léegi ba demoon ci baxaru nag lim defar ci barru yàqu bu jugee ci baxaru defaraat barru dafiy xajaat mm. te bu baax noos du jotagul màggal gi du mën a am diit bi safar jëm boppam mënul toon a am ba bamba amul cerno mm. déggoo ma de moo tax bi muy dem mu ne ko ceeno téel yëf yi xanaa xamoo loolu mu dénkaane rek mm. moo mat a seet lam dénkaane waaw lu pare la ba noppi te bëggul dara dara yàqu ca mm. mu ne ceerno yow gardeel lii yow sécurité lii mm-hmm. ma dem toji fee te ñëw tojal ma fii ma ñëw xamoo ceerno de loolu mooy ni ni Moussa wanee ni mënta ñàkk Harouna mm-hmm. ci mission am mm-hmm. sëñ Moussa ka ne ko bu fekkoon ne sëñ Tuubaa daa taxawee Moussa nga dem Harouna am waaye xal yu karamallahu wacca oh, waaw mission bi yonent bi yëpp boo ko doon la moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam yàlla dani ko kama arsalna fiikum hmm. rasulan ah. minkum ah. yatlu alaykum ayatina wa yusakkikum wa yuallimukum alkitaab wal hikma wa yuallimukum ma lam takunu taalamu maa leen yónni ab yonent boo xam ne dama ko def nit mu bokk ci yéen ngir mu leen di jàngal ay xam-xam taxaw na waaye di leen defar di tasfiye seen nasu xam-xamu la dun ni ya taxaw na yaa ngi dégg wa yuallimukum alkitaab wal hikma mooy mu leen di jàngal téere bi nag ak sunna si xam-xamu saahir taxaw mooy wa yuallimukum ma lam takunu taalamun mu leen di xamal lu ngeen toon xam-xamu fahmu mooy dégg ci biir téere bi lundul gis taxaw sayyidina Ali yu karamallahu wajhana yonente bi ne ana madinatul hulum su xam-xam doon ab dëkk maay dëkk ba xam-xam gola baal bu doon dëkk ba maay dëkk ba ci biir dëkk bi ne daa am ay koñ am ay quartier loolu mooy xam-xam aqiqa ak lasrar rek nangam na lépp ci biir dëkk bi la rek yaa ngi dégg may dëkk ba waaye waxal li yun baabu xaar lan moo taxoon mu daan wax naan yonent bi bëri lu ma xam-xam bu mu bërilul kenn waaye damaa déggloo ki téere bi lu kenn déggul yaa ngi dégg moom Seydina Aliyu karamallahu wacca gis nga mission Seydina Aliyu ni mu manee ni mu doonee mission bu mënta ñàkk ci mission bi yonent bi nga xam bi yàlla y waajal yonent bi la waajalaale Aliyu moo tax gis nga rañaan nga nee na ko lu ma sori s sori bu ma téenee ci suuf rek gis maqaam ma la yàlla defal waaw yow moom mosoo tàqalikoog man rek yow nag moom mm. yaa ngi dégg Seydina Aliou ba muy Aliou rek lay Aliou Moustapha yaa ngi dégg cerno ba muy cerno lay cernoy daam gisoo mooy bàyyi sërif yëpp abou sirafil an jimi mbooleem sërif yi banqaasoo ci yonente bi ñëpp ci Seydina Aliou lañ jaar Fatima toy seen nday mm. mission boobu rek doyoon na alxuraan ne qul laa asalukum alayhi ajran ilaa mawaddata fil qurbaa alxuraan kat maa leen ko jox gratuit amutuk fay su ngeen amoon li ngeen ma a fayee mooy fonkal ma sërif yi te mooy ñi bànqaasoo ci yonente moo tax borom tuba aliyu meññ loolu doyoon na ndam mhm. yaa ngi dégg mu ne ko nag bu yonente bi taxee woon rasulu nga dem aliyoom yaa ngi dégg daam de waaw moo tax sëñ tubaa ni mu ko yaree ba mu yor jikkoy sëñ tubaa mhm. moo tax sëñ tubaa yarloo ko njabootam ndax njabootuk sëñ tubaa gi duñ yor lu dul merew sëñ tubaa mhm. moo amit tawfiix ci diggam ak mooy misaal bi nga joxe ci Aaroona ak Seydina Moussa ak Sëñ Tuubaa ak Cerno hmm. ak xam nga Seydina Aaroona sax bañ ko dénkee njaboot ga boo yent bi ba Moussa demee hmm. di gisee yàlla mel na ni euh, Moussa Samir yu dugg na ca njaboot ga ba ruur ko hmm. ba bi Moussa ñëwee daa tàng waaw waaye xool Sëñ Tuubaa tawfeex gi mu defal Cerno da ko waajal moom la ko dénk réerul raggul te ruurul xam nga loolu loo ko waral mooy avant mu koy dénk daa fekk mu yar ko ba mu ne jàngal ko ba mu ne ar yee ko nag ba mu ne jar xanaa mm-hmm. xamoon ne oustaz daam lu mm-hmm. complexe ngi nii bu mm-hmm. Sëñ Tuubaa mëttoon Sëñ Tuubaa li problème lay doon gis nga Sëñ Tuubaa ni mu defaree ñi ni tudd ay rakkam te maam Cerno jiitu ci maam Cheikh Anta ma Masamba nga xam ne ñoom ñoo bokk maam indi seli yaa ngi dégg ni mu leen defaree ba ay doomi boppam def leen nawle loolu bu Sëñ Tuubaa mëttoon Sëñ Tuubaa du am bari na ko yor mbir mbir moomee nga yor ni nga ciy joxe sa doom ak ni nga ko ciy defaree du bokk ak ni nga ciy joxe say rakk chaque jour say rakk yu loo leen favoriser favoriser bàyyil ab ruq say doom loo joxul say say rakk ñaaree fi ñu toll nii sax ku doon kilifa ku nekk pour say doom def nin la def yow bàyyi ñu def ko seen rakki bàyyi te muy dëgg lu jafe la te loolu ñaare fa muy mooy ca kilifa ga waaye xoolal sëñ tubaa maam sin maam Cerno mhm. ni sin fàllu si mën mos waa jàppe sin tubaa bàyyi noonu lañ ko defee bàyyi ni leen Sëriñ Tuubaa mati ab sëriñ noonu la leen Cerno mati ab sëriñ loolu nag ci matuk Sëriñ Tuubaa la jóge moo tax loolu mën a nekk yaa ngi dégg moo tax kon foofu rek boo fa boo fa jaaroon ba buñ fa tàmbalee woon ci li nga xam ñi ngi xaar sunu gan gi hmm. danga xam ne maam Cerno moom cërub boppam la yor boo xam mu murid yëpp dañoo amee ak cant hmm. Cerno Ibra Faati hmm. ci Sëriñ Tuubaa ngir li mu def nun ñëpp la ko defal ndax lii ko Sëriñ Tuubaa dénkoon te kat li cool yi bari bari bari kat Cerno moom lañ dénk njaboot gi bi Sëñ Tuubaa ñëwee présenté waat nag ko waaye dégg gu ma fu ñu ko jëlaatee. jaaxal na ma. macha allah la ko bëggoon defee nag. lay la laay faal lay la la laa Modou Mbakke borom jumaa je. lay la la laa Modou Mbakke borom jumaa je. lay la la laa. lay lay la lay borom juma waxi mag du jaaxaan dénkaane kañu woon looy daaw ñun ki ñu dénkoon mam faati borom magal ge la la la la la la la jumaale ak mag du caaxaan dénkaane ki ñu booloo waxi mag du caaxaan denkaane ki ñu walloo ñun ki ñu denkoon mag Cerno Faati borom magal ge lay lay la la Amadu Mbàkke borom jumaa waxi mag du caaxaan denkaane ki ñu walloo ki وقيمة جاقان كان كن ولو وقيمة جاقان كان كن ولو وقيمة جاقان كان كن ولو ñun kinu mam jamu fati borom jumaa la ilaha illallah la ilaha illallah mo de ba ko borom ñu maye waxi mag du jàkkaande ngaane ki ñu wóolu waxi mag du jàkkaande ngaane ki ñu wóolu waxi mag du jàkkaande ngaane ki ñu wóolu waxi mag du dénkaane ki ñu wóoloo la ñun ki ñu dénkoon maam Cerno Faati borom jumaa je la la la la Moodu Mbàkke borom jumaa je bokki mag du caaxaan dénkaane ki ñu wóoloo la bokki mag du caaxaan dénkaane ki ñu wóoloo la bokki mag du caaxaan dingaane kanu wóoroon ñun ki ñu dénkoon mam Cerno Faati borom magal ge la ilaha illallah la la la Modou Mbacké borom jumaa jee ñun ki ñu borom magal ge ñun ki ñu dénkoon Maam Cerno Faati borom baayu Sëñ Usmaan ki ñu dénkoon Maam Cerno Faati Faati mami borom daru kore ñun ki ñu dénkoon Maam Cerno Faati borom magal ge ami Cheikh Modou Kara Noreyni ñun ki ñu dénkoon oh. Mame borom magal gi Mame Thierno ay ma gay xasida tubaarkàlla ñëpp a ngi réagi tubaarkàlla maa ngi jaar baax a baax sëriñ Modou Gisé mu Sérif Abdourahmane Faty Tall mu ñu bàyyi xel ak mboolem képp ku ñuy bàyyi xel ñu ngi lay jaar baax a baax Alaaji Ibrahima nee na euh, génnum àdduna Thierno rek mooy tamponné liggéeyub Serigne Touba ak soxna Faati Issa Dieye tarkala walaay wax nga dëgg mu ngi nokkal baax a baax la saas damay ñëw ci yow nga daal di kii mais laata loolu fekk rési am na ku nekk ligne bi ñu ko rek xam naa te publicité dama koy leb rek ba suba ndax tarkala waxtu waa ñuy def fekk am na ku nekk ligne bi ci 88 28 02 02 88 128 02 02 Oustaz looy tuftal ci li gars yi indi xam naa ni saram tàng na fi ne. Mhm. li li gën a duuf ci nag li dañ ko dañ koo dañ koo jël. Mhm. ku mel ni sëñ Saliou ak euh, sëñ Bokar waaye euh, maam Thierno xam nga dafa am relation particulière boo xam ne bu mu amoon digganteem ak Serigne Touba. mu maam Thierno. waaye loolu sëñ Touba xam nga li tax euh, wax ci moom yomb na. Mhm. li tax mooy ni lépp lu mu def ak lépp lu mu jëflanteeg nit rek da koo bind ndax dafa am benn bataaxal boo xam ne Sëñ Tuubaa da koo bind maam Cerno mhm. bataaxal bi nag li ci yéeme mooy euh, sëriñ bi dafa jël aaya alquran wa anziri naas benn ba xaraf bu nekk mhm. Sëñ Tuubaa composé ci ab bayit saa ah, yi loolu euh, tubaab tuddee acrostiche acrostiche la Sëñ Tuubaa def jël ko di ci euh, jox ay kàddu ndénkaane jox ko maam Thierno Birahim mm-hmm. waaye li sëñ Saliou doon wax léegi li koy dëggal mooy sëñ bi li mu wax ni maam Thierno Birahim musulta wuuteek moom bi muy nekk ndaw waaye musulta wuuteek moom itam bi muy nekk mag xam nga loolu li muy wane mm-hmm. mooy euh, dafa symboliser li ñuy tuddee l'érudition mm-hmm. maanaam ak ku géeju ci wàllu xam-xam waaye bu ànd ak loo xam ne moom mooy humilité hmm. maanaam wàcce sa bopp hmm. moo tax boo xoolee maam Thierno rek hmm. euh, maam Thierno mi nga xam ni euh, maam Thierno mu Birahim waaw euh, da nga koy sénti moom mooy fees ba noppi boole ko wàccee sa bopp ndax da ngay gis tey jii njaboot gi ni ñuy def ak maam Thierno ak fi ñuy àgg ci moom sax dem bay bëreek moom kilifa gu dem ba tey say taalibe dem ba àgg ci yow sax mel ni kuy bëreeg yow. ci oyof ga. waaw ci oyof ga loolu moo nekkoon ci maam Thierno waaye da gis ne Sëñ Tuubaa euh, bi mu koy jox bëy di maam Thierno da koo jox ab addiya. waaw boobu waaw Sëñ Tuubaa ne ko addiya gi de yegsi na. boobu mu tukki ba mu yóbbandu ko addiya. yo mu ne ko Sëñ Tuubaa ne ko boo xoolee Sëñ Tuubaa mi ngi koy wax mu ko ni mu ne xat wasalat ilayna al hadiyatu mu ne ko hadiya ba nga yóbbante da yàgsi na hmm. waaye mu ne ko fa ajabtu ko bi xuruufi qawlihi taala mu ne ko maa ngi lay tontu hmm. te li ma lay tontoo wax suñu borom laa lay tontoo mu ne ko waaye wa andiri naasa la Sëñ jël xoolal bayit yi ci Sëñ Tuubaa tënk waaye xoolal Sëñ Tuubaa ci rafetu plumam hmm. waaye Sëñ ak ci mbindam xalimaam ni mu yaroo Sëñ Tuubaa li mu ci teg mu ne rajiyan min allahi tabaraka wa taala oh. Sëñ Tuubaa ndénkaaneem balaa mu koy def dina ci dugal suñu borom mu saf sa sab ndax moom léppam suñu borom la nga dégg ko mu naan an takuna haasihil abiyat mu ne ko bayit yi ma lay bëgg a jox cerno bayit yi de min nuurillahi taala allazi la yatfau day leerug yàlla goo xam ne du fay ba mukk mu ne ko abadan inna rabbi la samiu du'a sëñ waa ne ko éternellement mooy leer gi nga xam ni moom mooy tukkee ci li ma lay jox nii mu ne ko cerno leer googu du fay ba mukk déglul euh, laaye biir yi ko sëñ Tuubaa jox sëñ Tuubaa ne ko wasiyatun tukassiru l ataaya li man yajtanibul xataaya sëñ Tuubaa ne ko lii ndénkaane la goo xam ni tu kassiru dafay bari al ataaya ay may li kulli man yajtanibul xataaya ci képp koo xam ni ñàkk na boppam ba jombale def boppam yenn yenn yenn yenn njuumte yi sëñ Tuubaa ne ko aussi ko cerno maa ngi lay dénk mm. bi ta euh, bil ilmi ci xam-xam mm. mooy li sëñ Saaliw wax léegi ne yoonu murit xam-xam ko sanc mm. waaye ba bil ama amali mooy xam goo xam ne li ko laytaayee moom mooy jëf ma at addu bi ànd ak tegginu mm-hmm. adab nag ak ta addu bokkut ni juddu nga ci kër gi waa kër gi yaru na ñu ne diw de ci kër gu uh, ñu yaru la bokk waaye te addub gi nag jomu kenn ku nekk la ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ne woon addabani rabbi fa ahsana hmm. ta'dibi yàlla suñu borom moo ma yar waaye yar gi ma suñu borom yar man sallallahu alayhi wasallam Mouhammad ibnu Abdullah mu ne maa def jom ju tax yar gi ma yàlla yar mën a antu ba ku ma gis ne iskay ba wa innaka la ala xuluqin azim te wa innaka la ala xuluqin azim sax kii yi di ñëw dinañ ci ñëw ndax suñ tubaa bind na xasida boo xam ne wa innaka la ala xuluqin azim acrostiche la ci def mm-hmm. jël benn eh, aaya boobu xaraf bu ci nekk suñ tubaa def ci bayit mu ne ko Eh, ma atta addu bi ànd ak tegginu alal kamaal ci gu mat sëkk nag ndax nit dina am teggin waaye teggin yam desee mat mu ne ko teggin goo xam ne day ànd ak mat sëkk mu ne ko beneen di mu ne ko nazif fu aadaka mu ne sëñ Tuubaa ne cerno setalal sab xol bii hmm. anil adraani Euh, wëlis li nga xam ne moom mooy tilim tilim yi gàkk-gàkk xol yi mu ne ko cerno génne ko ci sa xol waaye xam nga Sëñ Tuubaa bi wax ak cerno waxul ak cerno en tant que tel ñun ñi nga xam ne ñoo doyee di ñun ñi nga xam ne ñooy njaboot gu doyee di nekk ci li nga xam ni moom mooy yenn ëy bi ñun lay wax ñu setal suñu xol waaye Sëñ Tuubaa mi jël njaboot gi dénk ko cerno xam na ni cerno xol ba amul ay tilim tilim waaye Cerno la mu ko Sëñ Tuubaa di jox. Mhm. du pour Cerno en tant que tel waaye pour mën cee tàggat ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, taalibe yi. Mhm. takun muqaddaman alal akraani mu ne ko cerno lii boo ko defee danga raw say maas sa cerno raw na ay maasam mu ne ko zulla li ixwaanika li nasihati tanju min al baghdai wal fadihati mu ne ko cerno maa ngi lay ñaan na nga ci say kanamu say mbokk ndax boo mokkee ci kanamu say mbokk mooy tax tey ñu muccul euh, nga mucc ci say mbokk ci mbañeel mooy tax nga mucc say mbokk ci gàcce mu ne ko cerno rumit tawaadi ah mu ne ko cerno maa ngi sàkku ci yow nga saxoo li nga xam ne moom mooy wàccee sa bopp ànd akuk dal mu ne ko waaye cerno li kulli muslimin jullit boo gis bu nekk cerno fexeel ba jàpp ni kooku moom mooy gën mu ne ko waaye tanju bila taraddudin min zulmin mu ne min zulami mu ne ko cerno boo defee loolu daa mucc ci ay tooñaange waaye bi ci gën a neex mu ne ko isa ataka adudi hmm. kitaabi fa karrim kitaaba bil mataabi mooy adud bi nga xam ne moom la sëñ Saali waxoon léegi sëñ Tuubaa moom moo tuddee cerno bras droit wam mais cerno moom mu ne ko bu la euh, mbir dikkalee mu ñëw ci man muy ab bataaxal ab nataal wala ab lenn loo xam ne téere la bu ñëw ci man mu ne ko fexeel ba loolu yow cerno na nga ko teral teral goo xam ne gën ji teral la waaye mu ne ko layin lisaanaka cerno na nga fexe ba yaral man li nga xam ne mooy sag làmmiñ waaye wax naa la ni sëñ tubaa waxul ak cerno waaye ña cerno war a defar lay waxal mm-hmm. ndax sëñ tubaa xam na ni maam cerno yar na xolam ba xolam amul tilim-tilim waaye xam na ni maam cerno yar na làmmiñam ba du ca wax lu waxuwut moo tax mu ne ko layin lisaanaka wa qalbaka maa mu ne ko na ngay nooyalee sa làmmiñ gi na xol bi tamit melee noonu ba doo yéene kenn safaan yow cerno waaye lil muminina sëñ Tuubaa ne ko nag cerno bu mu yem ci muri di kese cerno bu mu yem ci waa ba kese cerno bu mu yem ci kese cerno lil muslimina képp koy julli rek na dugg ci biir loolu yow cerno waaye xayra xayrin tajma a mu ne ko boobaa lépp luy mangi teraanga lu nekk danga ko dajale yow cerno mu ne ko naa day tukal yow ma maa ngi lay wooye bisu tey gii bi ibrahimu ci ibrahima allim fatan yanfaahu tafhimu mu ne ko xamalal maanaam as cem maanaam ibrahima innahu eh, fatan bañ ko waxoon mooy as cem mooy ko xam ne daa marqué jamonom la arab di tuddee fatan hmm. wa fatan xaybin waxijal masihati fii hadasati am redi boo demee tey ji ci daal euh, ma ngi koy wax nee na ñun suñu dëkk boo fa ñëwee lii suñu teraanga mooy da nga fay fekk as gone soo xam ni lu muy tuut tuut tuut boo ko nattee ci xam muy mag mu béjjaaw mm. gaynde gott goo xam ne bu nekkee ca biir front ba mm. bu jàkkaarloo gaynde sax day duma gaynde ga moo tax mu ne ko nag usika bis sabri wal ixlaas yi mu ne ko mm. cerno maa ngi lay dink nag ci muñ lu jamono tar tar tar mu ne ko na nga ko na nga takkoog sellal suñ tubaa ne maam cerno ne ko هذه mu ne ko nag ñeel ki nga xam ne moom mooy suñu borom man lii jaada bil xalaasi kooku nga xam ne tey ji moom moo ma tàggatal lépp ba lépp yomb man suñ tubaa salaamu zil jalaali wal ikraami suñ tubaa moom xoolal wàcc gamu wàcc eh, ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ala nabii darajatal karaami mu ne yàlla na yàlla sotti ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ma nga xam ne moom lépp luy daja darajay teraanga rek gu mag gu nekk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jël na ko moo tax waykat ba waxoon ki nga xam ne mooy jëwriñu suñ tubaa mu ne ko wa ahsanu minka lam tara qattu ayni wa ajmalu minka lam talidi nisa mu ne euh, ba ko xasaan xoole mu yàgg ne ko ku rafetee ni yow mm. jigéen musu koo jur waaye ku matee ni yow mm-hmm. jigéen euh, musu koo indi ci àdduna mm-hmm. kooku mooy ki nga xam ni moom mooy Cerno euh, loolu nag nekk lu amaamaam solo sëñ Ousmane tarkal mi ngi noonu loolu la oustaz Daouda Mbaye indi muy ndénkaat lu am solo loo xam ni Cheikhul Khadim yaakaari bi muy jotee li nga xam ni moo di addiyewu maam noo ca tukki ba ci la daal di jëlee bataaxal bu mag bi daal di koy bind ki nga xam ne moo di maam Thierno Ibrahima Faty toarkal ñu ñu ngi jégoo ci lumière yooyu fay daal di fay toarkal ñu continuer ak euh, ki nga xam ni moo di euh, sëñ Bokar laata maa maa jàll ci ki nga xam ne moo di sëñ euh, Saliou xam naa sëñ Bokar sëñ sëñ sëñ sëñ sëñ sëñ Xaadim sëñ Ibrahima daal di ubbil Serigne Saliou ñu doogu tëj maa ngi ànd ak Assane Fall Global Tech Team bu ngeen wootee ci 88 628 0202 ma laa leen koy may lii tissu yu baax la yoo xam ni Assane Fall moo koy jaay mi ngi fii ci parcelle à face Sénélec bi bu ngeen ma woowee ci 88 laa leen koy may ñoo ngi tuub ci lumière yi ñu ngi ci tuub bu baax a baax tubaarkàlla bu ngeen ñu woowee ci 88 628 0202. ma ànd ceeg Assane Fall Global Textile daal nekk ma ci ci pegg maa ngi ànd ki nga xam ne moo di Alaaji Àlla Sekk borom xeet ma couture àlla moo leen di may yi baax yi nga xam ne laxasaa ñëw ba noppi la boo wootee ma la koy may ci 88 628 02 02 maa ngi ànd moo di Assane Fall ne moo di Alaaji xool xool ne mu def rek fi mu génn ak man xam nga ni yii neex naa neex naa yóbbu Touba. ah sëñ Alla xam nga yii yii neex naa jaar gis. borom xel ma ku dee nekk nekk ni may fuweelee nii moom. tarkala xam nga ni nii nii ah? baax na oustaz. ah waaw nii nii rek ba Touba de. wallaay ndeysaan xidma. Ah. waaw xid fii xidmatil xadimi rek. Ah, ba Touba fii xidmatil xadimi ila Touba tarkala eh, ñu ngi koy ndokkeel bu baax a baax di ko eh, ziare tarkala ala jàll sekk borom xitma couture di mm. fidèle eh, partenaire ànd ak ñun ci plateau yëpp tarkala bu ngeen ñu woowee ci 88 628 02 02. 88 628 02 02. ñu daan leen di may euh, ci li nga xam ne moo di plateau yi Pape Omar Pape Omar maa ngi lay li ma. harkal kon li ma xotteeku lépp <laughs> ci air bi la pour man lampe yee fay rek. <laughs> pour man non dama jàppoon que ni courant lampe yee fay rek. dañu ko noonu la ñuy arrêté. الأبس والسفر صلاة صلاة الذي في كل سهر وفي سفر هماني هلا ماهن ما الأبس mu ngeen woote 88 628 02 02 88 la 628 02 02 sëñ sëñ sëñ Saliou da ngay ubbi sëñ Bokar mu tëj sëñ Ibrahima ubbi sëñ Saliou mu tëj ñu doog a yëkkati jotaay bi incha allah sëñ Saliou bisimilah. bismillaahi ma jóg dem ba daaru raxmaan bakk mbër ma ko sancoon di jaamu raxmaan bismillaahi ma jóg dem ba daaru raxmaan daaru raxmaan bakk mbër ma ko sancoon di jaamu raxmaan bismillaahi ma jóg dem ba daaru raxmaan bàkk mbër ma ko sancoon di jaamu raxmaan waaw bismillaahi ma jóg dem ba daaru raxmaan sëñ Fallu wa sëjëy bàkk mbër ma ko sancoon di jaamu raxmaan bismillaahi ma jóg dem ba daaru raxmaan bàkk mbër ma ko sancoon di jaamu raxmaan bismillaahi ma jóg dem di soppi ma ko di jaamu raxmaan dem ba daaw raxmaan raxmaan ba daaw ma ko sañcoon di jaamu raxmaan kooka moo sëriñ Fallu mu wasajee way juram wu jigéen musla tongu luy géen oh, waaw ma jóg dem ba daw bay sëriñ ya booba sëriñ Basiiru di jaamu raxmaan baa jugee dikk gouverneur ba yéegi si Touba yàlla may na ma gër man ma dëkk Touba baa jóge di ko war nag ba yéegi si Touba Touba yàlla may na ma gër nag ma dëkk Touba sopp Sëriñ Touba yàlla may na ma kër man ma dëkk Touba Touba yàlla may na ma kër nag ma dëkk Touba bëgg Sëriñ Touba yàlla may na ma kër man ma dëkk Touba Serigne Touba yàlla may na ma kër nag mu dee ana soppey Serigne Touba Touba yàlla may na ma gër man ma dëkk Touba Serigne Touba yàlla may na ma gër ma dëkk Touba bëgg Serigne Touba yàlla may na ma gër man ma dëkk Touba Serigne Touba yàlla may na ma gër ma dëkk Touba bëgg Serigne Touba yàlla may na ma gër man ma dëkk Touba bëgg Serigne Touba yàlla may na ma gër ma dëkk Touba sa doxin wa day teey du ma doxin wa day teey bajantu doxin waday tey. Fallou doomi ñay du bajantu doxin waday tey. Seex Moodu wa Balla sa tub kumba ñu. magi Seex wa Balla mageti am ñoon. aywa Seex Moodu wa Balla sa tub kumba ñoon. kumba ñuul magi Seex wa Balla mageti am ñoon. aywa Seex Moodu wa Balla. satub kumba ñuul magi seex wa balla magi tiyam njool mami sëriñ basiiro magi seex wa balla ndaayaan magi seex wa balla magi tiyam njool magi seex wa balla magi sëriñ abo ndaayaan magi seex balla ma ngi tiyam yoon daayaan ma ngi seex awa balla ma mi sëriñ Basiru daayaan ma ngi seex awa balla ma ngi tiyam yoon daayaan ma ngi seex awa balla ma mi sëriñ Basiru daayaan ma ngi seex awa balla ma ngi tiyam yoon daayaan ma ngi seex awa balla ma ngi tiyam yoon waaw ma ngi seex awa balla ma ngi tiyam Joor ayaan ma gisal awa balla ma seex mu du awa balla xeraw looti leen ma seen xel yi joxuma ma jëg way fi ndaayan seex mu du awa balla xalalooti leen ma ndeysaan xel yi joxuma wawa way fi ndaayan seex mu du awa balla maa ngi sant yàlla te julil ndawam la ma la lay salla borom am ba yàlla maa ngi sant yàlla ndeysaan yàlla lay la la te julil ndawam la lay la la mala lay sàlla boromam ba yàlla may sant yàlla te julil ndawam la mala lay sàlla boromam ba yàlla Saliou Mbaye tarkalla ah jooyu ma sëriñ góoram Mbaye ndax la watu bi am na solo maa ngi leen ndokkeel bu baax a baax di ndokkeel bu baax ala yàlla sekk ba mu xët ma ko ciir nee na mi ngi ndokkeel bu baax wasilaam sëriñ Abo ci borom daaru waaye yaayam ju baax ji nga xam ne mi ngi fële ca daaru musti di soxna jaara cubb ñu ngi koy jaar baax sunu yaay ji di ñaan yaa defal ko jàmm ala yàlla ñu ngi leen ndokkeel bu baax a baax tarkalla xam naa damay jox sëriñ Saliou mu daal di collecter débat bi ndax waxtu bi xaj na jëm ci jeex bu ko defee Ibrahima nga daal di ubbil sëriñ Bokar mu tëj sëñ sëñ si Saliou Mbaye daal di tëj jotaay bi incha allah sëñ Bokar sëñ Saliou. dégg nga li Oustaz indi ci dénkaan lu am solo loolu. ak fi nga jóge woon. boo doon tënk waxtaan bi xam naa du ñàkk incha allah. ci safar gi wala bu safar gi weesoo dinañ amal spécial plateau boo xam ni dina gën a ci maam Thierno. ci maam Thierno maam hmm. faut ay plateau rek nga ciy def. incha allah ndax saa euh, saa yee waxtaanee maam Thierno rek yaa ngi hmm. waxtaanee sëñ Tuubaa. wallaay dëgg la ndax ay manifestation sëñ Tuubaa rek mooy feeñ. ci maam hmm. Thierno maam Thierno résultat la. wallaay dëgg la ci li Sëriñ Tuubaa doon mm-hmm. waaye résultat la it ci mission Sëriñ Tuubaa bi mm-hmm. te résultat saa yoo koy wax yaa ngay wax kon ca cause ba waral résultant ba te Cheikh Ibrahima Faty yi nii ko oustaz waxee mm-hmm. boo gisee ni ko Sëriñ Tuubaa joxee ndénkaan bi rek dangay xam ne kooku la Sëriñ Tuubaa doxale digganteem ak njaboot gi ak taalibe yi ndax wa naa sax mooy aaya bi mu ko tënkee yàlla dina yónente bi kat waxal ma nit ñi xuppal ma nit ñi ndax yónente bi day mu basiran di nasiran inna arsalnaaka saahidan wa mubashiran wa nasira mhm. nga wa ansiri naasa damaa bëgg nga xuppal ma nit ñi waxal ma leen nangam ak nangam Serigne Touba itam buy wax ak nit ñi mu ni Cerno wa ansiri naasa laay def leetar bi mooy kon waxal ma ak nit ñi kon day mel ni mooy làmminu Serigne Touba gis nga euh, la sil musaaka ni boo doon yonent bi muy am aliyoom gis nga boo ko xayaasaatee ci alxuraan it gis nga oustaz Seydina Aliyu karamallahu wacca mhm. gis nga ni mu nuróowee ak maam Thierno Ibra Faati ci diggante Sëñ Tuubaa ak carno ak diggante yonent bi ak àll yu xam nga noo koy xamee mhm. yonent bi bi muy gàddaay du jigee màkkatal mu karam jëm Madinatu Munawwara ci ndigalu suñu borom daa fekk booba yéefar yi mboolem askan ya nekk ci biir màkka ku ne tànn nañ fa ponkal wala ñaari ponkal yu am doole ñu yor jaas yi waajal yonent bi ngir ñëw ñëpp kat wut nañ pexe mu ne mu échec léegi nan ñëw tiimandoo ko nag dóorandoo ko bu faatoo ñu ne ko xaree ñu ni gars yi. ñu fay diya. ñu fay diya ndax kenn mënta xeex ak giir yëpp. stratégie boobu lañ teg. ban ko waajalee ba ni ci guddi gii lañ koy def guddi googu la yonent bi woo kan naa Aliou. Hmm. gis nga ni nit ñi bari bari Aliou la woo. Aliou la ki tàmm. waaw ba mu dikk sax mu wax ko loo xam ne moo lay xamal gis nga ni mu nuroo Cerno ak daam. Hmm. Aliou mu ne ko waaw ma ko jot naa ndigalu saa borom. Hmm. ci génn Màkka dem Madinatu Munawwara. te Sëriñ Tuubaa daa jot ndigalu boromam ci génn réew mi jëm ci tukki bi ngir liggéeyal yonent bi li xidmatil muxtaar yi fii sahari safar xaratu yow ma sabti saamina asar li xidmatil muxtaar yi fii safar te ci yàlla la koy defee moo tax mun yente bi mën a ma demal te bu ragal nga xam ne yente bee ko digal fas nax bi maa tóomaru mu ne xaddiimahu tafsiirahu bi fas dahi mu ne ko jot naa ndigalu yàlla man yónente bi mooy wax ak Aliou damay génn kon dem madinatul munawwar damay gàddaay Ababacar Siddiq lay àndal ma bëgg nag ndénkaan yaa ngi nii Hmm. na yent bi al amin la tuddoon waaw ki ñu wóolu ki ñu wóolu te yéefar ñoo ko tudde woon ak dëkkandoom ya yéefar duñ koy bañ bañ bu di koy dénk moom ngay dénk ndax moom mooy ko wóor ki moom te loo ko dénk na nga ko ko dénk woon nga cay jotewaat doo fekk boo ko dénkee cent mille doo euh, yu ni nga jox cent mille bee yu màggat nga ñëw mu jox la ñaari cinquante mille yu bees tax waaw kooko sax wóorul wóorul daal na ko waaw kooku jub na waaye wóorul jub ak wóor ñaari bokkul la hmm. waaw boole jub ak wóor nag mooy mbir ma xam nga ki jub mooy ki nga dénk sa cent mille nga ñëw mu joxaat la cent mille waaye doo lijjanti ba xam billet cinquante mille laak billet nangam ku jub la waaye ki wóor nag mooy ki nga xam ne même pièce bi nga ko dénkoon moom la lay delloo te daal di ko sot waa Màkka wóor yonent bi tuddee ko al amin woo Ali ba mu ñëw mu ne ko dénkaan yaa ngi nii kon lépp dama la koy jox yow dénkaat la ko xanaa kon kooku la wóolu moom sëñ Moussa Ka waxoon fee ni ne ko mooy sam àll yi bu fekkoon yaay rasulilaay mu jox ko dénkaan yeeg yooyu yëpp ne ko kenn bii diwa ko moom bii diwa ko moom bii diwa ko moom bii ni waaye yëmu ca de hmm. ne ko nag def na la neen muy la yéefar yaa ngi fii taxaw ah. liñ fas yéene nag mooy yërndu saa yéen gisee ne maa ngi fii dañuy xaar heure bi jot rek waaw kon da ngay tëdd ci lal bi ma tëddoon sangoo mbàjj mi ma sàngoo woon tëddee ni ma tëddee woon saa yu nu yor noonu ma nga fa xanaa kon mooy sacrifier sa bopp tama tax mu oh, nangu ko waaw moo tax alxuraan ko hmm. bi koo fekke Cheikhul mu yebal ceerno mu demal neel benn xam bakkan xaj na ci mu ko ceerno kaay dem mu nangu neel benn bi suñ tubaab demee ci géej gi ni mu doon àndeek njaboot géeg ni mu doon dëkkee ni ko tubaab bi da bunu xatala buñ la ko waxee nga xam ne ceerno ci risque doo nga la ne woon waaye wóolu daam laay laay na Aliou woon woon yonent bi ca lal bi ngir lan dee ci lal bi ma yonent bi tëddloo garaawut ndax la tax nga dee ci mission bi la cerno jom ja ak ngor ga mooy lu ma ci fekk ma jël xam nga lu tax nga xam ne lu ko dëggal hmm. am na jenn jamono njabar ko suñ tubaab gi di feebar waaw sin fàllu si mooy Moustapha ak Cheikh Mouhamadou Lamine Bara hmm. waaye xoolal daa wéetal boromam ni ko hmm. maa ngi lay ñaan waaw njabootu Serigne Touba gii bu Serigne Touba naree ñëw di ma ko laaj ñuy faatu ah. na sama njaboot yëpp jeex ba ci sama bakkan waaye doomi Serigne Touba bu fi kenn jóg joxo joxa joxo joxo joxo waale bakkanu way juróom bu jigéen ñëpp la ci boole ba ci boppam kon loo ci gis kee kee alxuraan dani jaay na ba jaay boppam ngir sacrifier ko jënd ko ngërëmul yàlla ak mbigum yonente bi Cerno ne sama bakkan sax na dem te doomi Sëñ Tuubaa yi des fi sama bakkanu wayjur na dem bakkanu njaboot gi nañ jeex waaye Sëñ Tuubaa ne ko bu doon bu doon yónente nga dem àll yomb xam nga ne loolu boo ko firi woon ci côté boo jaar nag laa la wax da gis maanaam max naa mu lay wax ni Cerno nangam yaa ngi dégg te gis nga ni mu ko waajalee sax wayjur euh, soxna Fat Isa doy na sëkk ci nga xam li Thierno doon si Modou si maa ngi koy ñaan yàlla na fi yàgg te wér moom mi nga xam daa bari xam-xam te mën a wax te xam ni ni waxee day wax ni ki gën a gëm a Sëriñ Tuubaa ci yoon yi mooy nee na mooy soxna Fatou Issa sama xarit a ko waxee la yàlla na ko de moom ñoo jàngandoo waaw si Moussa Saliou ñoo nekk ndoon université mm-hmm. waaw sama promotionnaire la waaw wallaay ndeysaan mm-hmm. moom moo ni mm-hmm. ki gën a gëm sëñ tubaa ci yoon wi ah. nee na ñëpp la ci boole soxna Faat Ise la mu mel ne dañ ko laaj na ko waa moo Cheikh Moustapha li nga wax rëy na di boo ñi may jël engagement bu toll ni ki gën a gëm sëñ Bamba nga ko leeral waaye si Moustapha Sall lu mu wax mu leer balay sa yàlla na si yàgg te wér yaa ngi leeral di ko leeral yaa ngi dégg waaw di leeralaat ay waxam ndax ay waxam leer na ba noppi si Moustapha Sall wu ni ndax biñ tàggee Sëñ Tuubaa ba ñëpp gëm ni jug na fi ka gëmul ne faatu na moo gën a gëm Bàmba te ceer na sax gëmoon na ni nee na ñëpp gëm ni dem na kenn doo nga gëmutoo ni dem na daane li ñëpp gëm na ka ko gëmut a gën a gëm daane soxna Faat Isa képp gëmutoo ne dem na ndax nag te ñi ko gëm nag bul defe ne dañoo wàññi de déedéet loolu sig la waaw comme ñooñu kun mosa yóbbu doo del si na ah? lool moom daal fii la jaar a gisatuñ ko waaye loo waaye mën a waxee koor du ñëwaat yaa ngi dégg ay saay ñu xaw a gëm ni rek nangam waaye loolu soxna Faat Isa wax waaye loolu ci daam la de. ndax moo waajal it soxna Faat Isa ngir waajal Cerno lu baax du doy. déedéet daama mbir mi faaw nu xam ne daama. Ah. fi ne lu rëy lu ne. Ah. natt ko ci li ko tax a rëy. wiiri wiiri ci yoon lu fi rëy ban koy waxtaane ki ko tax a rëy kenn la mooy Serigne Touba. loolu na ko nit ñi xam. yaa ngi dégg waaye Serigne Touba jëmba mooy rëy lu ko soob. moo réyal daam daam moo réyal cerno cerno moom ni mu mel ku yobu mu neex la ndax ku sin bamba neex cerno neex la ndax neex na bamba ba mu def cerno nii comme naqari di nga am coona yaa ngi dégg yàlla waaye xoolal soxna Faat Isa dañ leen loolu amut na sax ne ko man sax jàppoon naa xam nga sa mag ju baax ja waaye <laughs> te wax na dëgg kenn da koo xam mu ne ko ndax kat moom day am na tawat ju ko daan dikkal hmm. tawal joojee sax mus ba mu ko dikkalee ca la way mat la bi sifaay dégg nga ca biir mu cay junñë wa ashaki ilayhima min ad-darar xad mm-hmm. masani hatta urani muhtadar maa ngi lay jàmbat lor gii ci man muy tawat ji yow sama borom nga xam ne su ma dikkiree daanaka maa ngi faatoo yam nga xam day métti ba mel ni neen faatu naa mm-hmm. foofu la ko daan àgg daara métti ba du yor mën a du yor du mën a yor xalima di bind ku baax ki nga xam ne jamono jooju bu mën bu mënta ñàkk bind day dégtal ay ku muy bind loo muy bind ñii neen daanaka def si nam satu ñii neen daanaka def si mudi la mu job dagana di la dégtal ngay bind mooy Cheikh Aliou Xaraas si ni ko Seydina Cheikh Ahmad Tidiane daan def rek di ko tegtal muy bind ba mu bind Jawaahir Maani waaye xoolal soxna Faat Isa nee na tawat ja ba mu ko dikkalee nag euh, ca la ko defar defarloo laax boobee mu ko defarloo woon ak na mu ko defaree ba mu ko defaree ba noppi Sëñ Tuubaa nag dafa gaaw ci faj aajo mu ne ko loo ci fas loo ci bëgg waxal loo bëgg nu defal la ko ci mu ne ko man day ragaluma lu dul bàmmeel oh. bàmmeel daa lay sans problème moom ragal naa ko lool soxna Fatou Seye ragal na lu ko mat mhm. na bàmmeel damay faral di wax ne moom bu doonoon lu wóor ko defee sëriwul ah, waaw xam nga fax bu xate noonu rek ñu def la ah, ci yemun ca ba mu fees te lu toll ne li ñu def ki suuf ko jëlaat ci kaw foofu moom boo amee garantie it xam naa daal mu ni ko hmm, nii nii moom foofu daal mooy sans problème ma sëñ Tuubaa ko hmm. xanaa su ma la ko defalee sans sama bopp sama xel dana ci dal mu ne ko Mbàkke koo fa def xelam dal ci allahu akbar mu ne ko maa la ciy def waaw dëgg soxna Fatou Isa ne taman ko taman faatooguma te kooku lu mu wax def ko kon jóge ko fi ñëpp di kaat ah. soxna fa isaa réglé waat ñëpp allahu akbar kookoo kookoo mee ngi cerno ay daam wal baladu tayyibu yaxruju nabaatu bi izni rabbih wallati xabusa laa yaxruju illaa nakidan mamar anta sëli nag mooy way juru cerno di xutbu ba mu bokk ak sin bàmba lépp mm. gis nga bi mu nee dafa nuroog Aarona bu doon Moussa nga mu di mu di mu di sam Aarona nee naa la léegi Moussa moo sàkku Aarona bokk ci mission am sëñ Tuubaa ne dañuy miraas Maam Mor Anta Sali mi nga xam ne mook Cerno ko bokk mu ni Cerno doy na moom cër mm. xanaa moo sàkku Cerno ko mm, te keroog lu nañ fa woon mu ni bu ma amee Cerno nag man lu ma amatul baax na man daal bu ma Cerno rëcc rek li Moussa naan bu aaroon rëcc bu bokkee rek mu baax yaa ngi may dégg de kooku moo gën a gëm ñëpp sëñ Tuubaa kon ba sëñ Tuubaa ñibbisi ba nekk ci yéen jolof woolu ko waaye man soxna Fatou Issa dama ko bëgg rek xam nga sëñ Tuubaa ma war sama ndey ji ne maa ji waaye ah? maa ngi dem de waaye maa ngi fàttali ñu ne moom moo ma ko waxoon. dégg googu murit sax man mas ngaa gis ku mel noonu yow it te moom maa ngi nii dem di faatu ji damay faatu ji rek ndax moo ma ko waxoon woo na ma. <laughs> waaye kenn loo ko ca defal boppam ndeysaan oh. Hmm. moo tax nag Thierno sin bi da koo waajal daal ci côté bu ne. moo tax Thierno xajul ci ab jotaay. buñ ko doon jàng di analyser wet góoja fi ne maa ngi taxañ sax. Hmm. wetu àll gi mu ko bëggee leeral. lim na ko mu doon yënte mi sama àll yi woon damay taxañ wetu aaroone gi doyoon na. lam yu xaalif nii maa ngi ko bëgg a jàngat ak lam yu faarax ne waaye xaju fi daal. waaye Thierno xajul ci émission rek. Hmm. moo tax maa daaneel maa Cerno li toll. Mm. Cerno toll noonu. wallaahi ni Cerno amul morom. wallaahi dëgg la wallaahi ndeysaan. wallaahi wallaahi kon nga Muxti. Mhm. Ah, sëñ Ahmadou mu Cheikh Mourtada. Mhm. ndax Cerno nag daa mës a bëgg feeñ ci kanam sëñ Tuubaa. déedéet. ah waaw déedéet. Cerno moom mës a bëgg feeñ ci kanam Cerno giim rek la ma sa bëgg a def lii rek firnde la ci waaw dëgtal si ba ba na ba na ko rek mhm. nekkal ko fam ne waaw yaa ngi dégg lii rek firnde la ci parce que mu tax générique bi ma leen di wan Cerno mës ta bëgg feeñ ci kanamu Seexul Xadiim. loolu wér. seex na seex Sall. ah. ah waaw barkalla. moo tax fu ñuy waxee Cerno koo kaa bu coupé. bu lamp yi tàkkee ba mu yàgg rek. waaw ñu naan Cerno Cerno. bëgg bëgg bëgg eh, waxtuñ sëñ bi rek. waaw mën na waxtaanee Cerno. <laughs> Ceerno Ceerno intervenir. wan ni mësta bëgg wane boppam ni kanam sëñ bi yéen a ngi gis image yi ngeen gis noonu mooy mam Ceerno Birahim Mbacke euh, euh, naamal daaru euh, ñëwee fi nga xam ne moo di leeral TV image yi ngeen gis noonu mooy bi mu ñëwee leeral def visite leeral bi yéen a ngi koy gis noonu leeru maam Ceerno ci biir leeral ci biir leeral TV mhm. mi ngi ànd ak Oustaz Daouda Mbaye yéen a ngi koy seen mi ngi ànd ak ki nga xam ne moo di Alaaji Birahim Touré DG bi gis yéen a koy gis noonu image yi ci la ñëwee fi nga xam ci la ñëwee fi nga xam mhm. ni ci la ñëwee fi nga xam ne moo di Ouest Foire fii daal di euh, def visite boobu solo boobu tarkala fii ci Leral TV yéen a koy gisoon ci image yi tarkala tarkala ñaanal kër koy gis en direct tarkala euh, ci ah. image yooyu muy noonu mhm. mbooloo mi wër ko mu ñëw euh, war a fi nga xam ne moo di mhm. Leral TV mhm. di ñëw xool si taalibam bi nga xam ni oyof gi nga doon wax oustaz léegi léegi ak li nga xam ne mu disponibilité bi fu taalibam nekk mu fekk ko fa bi biraam ñëw ci kër gi li mu njëkk def mooy ñëw fii nga xam ne moo di sufaar daal di ànd ak mbooloo mu takku ñëw dugg bi dugg ci rajo bi dugg ci rajo bi tarkal la ñëw ci studio yu tarkal la mbokk yi bëggoon naa sëñ Ibrahima daal di ñëwaat jàngat bëggoon naa sëñ Saliou waaye du ñàkk incha allah dinañu dellu sat bu soobee yàlla ñu gën a waxtaan dama daal di tëg dëg te yàlla sëñ Bokar te yàlla oustaz man may naa sama tëj tarkal la may naa sama tëj tarkal la damay damay damay damay damay def ni maam Thierno may nga ma tëj bu tarkal la nee ko na tëj émission bi te bañ ñoo tëj kon mbokki ah tëj naa émission bi ah, baarik lanaa yaa rabbanaa fii Sénégal amiin bi jaay Abdoulaye Sall wari jaar jërë ngeen jëf jaajëf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 rajo ba ngeen doon day yegsi na rajo leeral rajo conducteurs rajo taximaan yi rajo chauffeur yi 96 point 1 ci Dakar 100 point 4 Kaolack 87 point 8 Mbacké Touba 93 point 1 ca Ziguinchor rajo bi leen di gën a jegelee ak xibaar rajo buy leeral ak rajo leeral léppay leer ak rajo leeral kumpa jeex na rajo leeral 96 point 1 Dakar 100 point 4 Kaolack bismillahi رحمن رحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وخديمه وسلم تسليما الحمد لله الكريم سلمنا على استقامة septembre 1895 di bés bu mbindeef dootul fàtte ndax mooy bés bi Cheikh Ahmadou Bamba jàkkaarloo wi ak conseil privé ba ca Ndar ci ab procès réew mi jëm balaa procès bi di am ñoom jëloon nañ décision ne dañuy condamné Sëñ Touba exilé ko wala rey ko wala et cetera lu ci bëri fekk na boobu suñ borom moom dogal na li muy dogal ba eggal exil bi moo gën ci moom parce que exile bi. ci la amee wéetaay gi mu bëggoon a am pour mën a jaamu boromam liggéeyal yonent bi alayhi salaatu wasalaam alors bi procès weesu nag ñu def ko ci train bi moom la ñuy wax gaal jéeri train bi jógee donc Saint-Louis wul si fi sirri wal jahri yakunu muhtada ndakaaru nag barab bu ñuy jamono ji kër Santhiam la dal nag am na ci ba muy dem géej la ñi ne ba mu dellusi yéen ngi ci kër Santhiam soo dégg ñu naan kër Santhiam borom kër gi mu ngi tudd Abdoulaye Thiam Abdoulaye Thiam la tudd moo fi daraloon sëriñ Touba fii ci biir bu mu ko dalalee fii ci biir mu am na mu def ak sëñ Touba. sëñ Tuba kontaan ci moom lool tuddee ko sang bi Thiam moom mi ngi tudd Abdoulaye Thiam sëñ Tuba tuddee ko sang bi Thiam gars yi xamuñu tur bi ñu koy woowee Jean Thiam fii mooy kër Serigne Touba di kër euh, euh, kër Mam Sang maire yi naan ko Mam Sang sëñ Touba nag néegam ni woon fii ci biir bu fi nekkee euh, sang Thiam dalal ko El Hadj Malick ñëw na fekk ko fi Cheikh Sidiya Baba fekk ko fi néegam a ngi ci biir. jàkk ju mu doon jullee mi ngi nii ci biir waxtu julli jot na sëñ Touba dem ci jàkk ji El Hadj Malick dugg Cheikh Sidiya Baba dugg ku ci nekk naan sa morom jiital sëñ Touba ne El Hadj Malick jiital El Hadj Malick ne ko jiital Cheikh Sidiya sëñ Touba ne ko jiital mu ne ko jiital sëñ tubaa jàpp loxo El Hadj Malick ci kanam moo doon jiite fii amul feneen lu am ci kër gi amul fen kër sëriñ bii nag kër sang caam bii moo ko jur. kër sang caam jàkkaarloog fi ñuy dippee kër sëriñ bi nee ñu fa la daan jullee. julli juróom tey def nañ ko ab jàkk ju taaru doonte rëyul trop ci niñ ko tabaxee. waaw fii de mooy moom lañuy ñuy adressé maanaam ci ni ko nasaraan bi kii muy 70 avenue Blaise Diagne di kër gi nga xam ne mooy kër euh, sëriñ Touba gi nga xam ne bi ñu indee sëñ bi fii ngir mu tàmb ngir muy tàmbali ji liggéeyam boobee euh, dañ ko yóbbu woon ci kër gi nga xam ne moom lañ jàkkaarloon muy kër Sathiam boo génnee mu ngay jàkkaarlool. biñ koy indee foofu nga xam ne foofu lañ ko garde woon yàlla def fii booba xam naa euh, demewuta nii mu demee ab àll woon sëñ bii de buñ ko téyee foofu ba waxtu julli jot mu daal di jóg jéggi ñëw ba jàkka ji nu toog fi la daan ñëw jullee waxtu juróom bu jullee ba noppi delluwaat toog fañ ko toog la woon ba waxtu jotaat mu ñëwaat julliwaat noonu la fi daan def. sàncaam gi moom euh, boo xoolee sax dafa jàkkaarloo crédit foncier. maanaam biir crédit foncier mais dafa jàkkaarloo ak sëñ Touba googu li ko waral mooy daan jéggi mbedd mi booba nekkuloon tali jéggi ko dem ba fëri ci genn garab moo fay beru di jaam yàlla ndax fëri nit ñi dañ daan bari di ko wër booba diggante bi xawoon na xëcc ndeke foofu nag sëñ Modou Sa mujj na moom ko ba mujj bi mu làqoo sëñ na doon donn ko ba ñu ngi koy defaraat ko. Euh, nett nañ ci soirée ne am na xam naa ay mbir yu fi jot a def ci comme noonu muy nga xam ne fi la daan jullee si. ba nga xam ne daal moom bi mu demee ba war a delluwaat yëg na ne am na fii lu mu fi def loo xam ne lu rëy la ba tax mu xemmeem lool barab bi bi mu ko xemmeemee nag bi mu demee ba euh, sëñ Moudou Moustapha ki nga xam ne mooy ab taawam ci yooyu jamono moom la santan ko barab boobee def naa fa loo xam ne na fexe ba jot ci. kër gi kër Serigne Touba la wax na ni bi mu fi jógee di tukki fii la bawoo dem ci tukki bi. bi mu ñibbisee mu wax sëriñ Modou Moustapha ni ko pàkk boobee ma daa yendu defal naa leen fa loo xam ne bu mu leen raw ca la say ca la sëñ Modou saytoo pàkk bi ba jot ci lakasakaytukasratal abadi ndax am na xel moom ba nga xam ne dama bi mu njëkkee bi mu ko waxee ne daa soxla barab bi dañ koo proposé woon ne dañ la koy may waaye mu xam ne may moom ci wàllu nguur bu amee mën nañoo dem bay neen jamono keneen ñëw xëy na am leneen lu mu wax lu bokk tak may kooku man jaay ni yeneen jafe-jafe mu ne daal ak nuñ ma ko mën a jaay nañ ma ko jaay rek jaay gee ma gënal daal ñu bu jubóog moom njëg giñ jubóo woon sax biñ demee ñoom ba xam ne kat kii li li maanaam dafa bëgg ak bëggam ci barab bi rëy na ñoom am na luñ dolliwaat ci li nga xam ne moom lañ ko njëkkoon wax ci njëg googa waaye sëñ bi nangu ko ñu meetar kon ni am nañ ko ko mën a jaay daal ñu jaay ko ko ci njëg goo xam ne njëg gu wér la nga xam ne moom ak moom la ma. kere bi pàkk bi noppee itam dafa wax ni def na ko kërug taalibe yi kërug jullit yi daal di wax ni képp ku ne doon laa ilaha illa asadu anna muhammad rasulullah yaag Modou Moussa yéen fi wàcc bi yemoo benn wàccuwaay muy pàkk boo xam ne bu barkeel la ba ba njariñ lool ndax boo dee xool waxuma Sénégal waaye Afrique ku ci tumuraanke boo ñëwee fii te di jullit am nga sañ sañu ne fi ba sa itte mat nga gindiku doog a dem fa la fa jug bi ñu toxalee capitalu AOF indi ko Dakar pourtant Gorée tuuti bi Gorée tuutee <coughs> ñu dellu si ñu ñu Jean si boppam ne dafay ñibbi Saint-Louis gouverneur général ne ko comme yaay son bras ah yaay su def sama interprète yëpp yaay suma yore sama liggéey yi mënoo dem Saint-Louis bàyyi fi moo ko kon moom naa la defal koo xam ni sa pare lay doon yaa koy moom pour recevoir tous les chefs coutumiers mu ne ko demal tànn mu ñëw fii tànn fi pourtant fi y avait rien dara amul ci dëkk si ñu ko doon jaayee de la République boobu temps ay charpentier moo fa ne di defar mat xaru yi di jox gaalu Corse gaalu Corse yi ñoo doon def ay Gambie Sierra Leone yooyu dëkk ñu daj la woon ñu fi nekk ñëpp muy kilifa katolik yi ak kilifa diine yi ak Serigne Touba nga xam boobu ñu naan croix Légion d'honneur ñu war ko ko takkal dégg naa si kër gi lañ ko bëgg a takkale fii si kër gi si li ma dégg mag ñi wax ma ko te ñooñu fi am na ñu fekk nañ ko te seen maam leen ko wax naan man garaat yi ma yàlla takkal doy na ma nañ ko takkal sëñ ma sàmba dégg naa si kër gi la loolu moom sa 1990 la ma ko nett si fi ne fi la néeg bi néeg bi waa ah, di ko di ngeen ko gis gis nga si ginnaaw fii hmm? foofu moo doon tool bi tool boo xam ne moom ko daan toggee lépp ci kër ko daan bàyyi lépp mu togg daaw dem bu ñu demee marché daal jënd ñuy wuti sa fii lépp ngi fi woon ba jegee sëñ bi si boppam moo daan dal fële yenn ci tool bi bu yenn si tool bi ah, bu bu ngoonee mu ñëw daaw wéete Euh, danni sëñ Touba ñii danni bi mu dem si géej gi la fi jaar ñii ni bi mu jógee si géej gi la fi jaar muy ñaari version yoo xam ni am na différence tuuti waaye ñun bi ñu jàpp daal mooy bi mu jógee si géej gi ñëw nu fii si kër gi ndax dégg naa si mag ñi ma ko fekk woon nee na ma booba dañ fee dajalee ñi nga xam ñoo ne nekkoon Burkina mooy jamono Ouadouata ak yooyu dëkk ñu dajale woon ñu fi nekk ñëpp muy kilifa catholique yi ak kilifa diine yi ak Serigne Touba. nga xam ne boobu ñu naan croix Légion d'honneur ñu waroon koo ko takkal dégg naa si kër gi lañ ko bëgg a takkale fii si kër gi si li ma dégg. mag ñi wax ma ko te ñooñu fi am nañu ñu fekk nañ ko te ko wax bam naan man garaat yi ma yàlla takkal doy na ma nañ ko takk sëñ ma sàmba dégg naa si kër gi la nee na mu jóge fii dem Njaareem nee na sëñ Balla Coro la fekk